وكان الشيطان للإنسان خذولا ألو راجل مصر ألو السلام عليكم وعليكم السلام أتعلم قوة واو دليل بدل بدل ألو واقعي راج مصر ما يعني شجاب سنتي على الحمد لله نعم ليش يا أسيا Alhamdulillah. waaw ah, ah, julli ngeen ak jàmm rek fasaalem si Aha. Mana ko ba julli ngeen ak jàmm fasaalem waay ah masha allah amin amin waaw xaaral nu jéem a alhamdulilah léegi ana kii ana ana kii eh, nu mu tudd njaay xaaral ma dugal ko dugal ko waaw mu di waxtaan salaamaaleykum. waaleykum salaam. maa koy jaay na nga def. ah allo. comme ah, sama gaay nu ma leen waxee partage leen vidéo bi. mu daal di tourné nit ñi mën seen daal di ñëw toog nu waxtaan ak euh, si njëkk ak teraanga ngir yàlla seen yenn wax yeeg nag seen yenn kii na ngeen ko téye rek allo. allo waaw. salaamaaleykum waaw Chane la. Euh, ok sant yàlla ma. sànq euh, Mbacke Sakho balaa ngay dugg sax. imam fadel da am lu mu lu mu jotono duggal neena wa mi lan neena mom da bëgg waxtaan bi nu da di ko tek ci lo xamna ni ke aya par aya nu baña xam nga suñu commencé benn wax nu matal bala no ag si benen wax bu koy tek ci aya par aya aya ah, par aya wala point par point yaakaar ah, eh, waaw li muy li jublu mooy su fekkee ne waaw li muy jublu mooy ñaari mais suñ jubee ci benn di tegtaloo hmm. jël benn aaya di ci tegtaloo balaa ñoo demaat ci beneen aaya ñu taxaw ci aaya boobu pare mooy eh, point bu nekk loolu da ngay wax par point loolu point la non point dafa parce que mbir mi ci alquran la dellu mooy da war tax alquran lay dellu kon dina baax suñu jëlee aaya balaa ñoo jugee ci aaya boobu noonu ku nekk ñu wax ci aaya ba pare daal di demaat benn tegtal su ma la laajee tegtal nga dund benn tegtal du wax ci tegtal boobu su ma laajee ab tegtal man di wax ci tegtal boobu waaye soo fekkee dañoo indi ay tegtal yu bari te tegtal bu nekk nga bëgg cee wax day mujj mi dañu di jaxasoo ndax kii su ma bi aay bi kële bëgg ko tontu ke bëgg ko tontuwaat ci tegtal bi day jaxasoo. léeg-léeg du demee noonu dafa dama ñëw. alquran da ngay wax par point. nekkul ne da ngay ñëw ne benn aaya bi bëgg caa wax man alxuraan waxuma ci sama xalaat lépp lu ma la wax ci aaya dama lay indil aaya ba koy firndeel wala aaya ba koy leeral alxuraan noonu la tëddee ay point la kon mënuñoo wax ñëw taxaw ci benn aaya déedéet dañuy taxaw ci benn point suñ waxee ci benn léegi suñ taxawee ci comme par exemple suñ soo indee benn wax kese nga teg ko ne ne léegi wax bi yow naka nga ciy doxee su ma lay tontu man danaa la wax ci aaya ba danaa la indil yeneen aaya yu koy leeral insha allah waaw su fekkee di nga baale mooy tegtal la loolu tax may le point loolu loolu ci ab tegtal la mooy sunu li wax mooy sunu ñëwee ci ab tegtal lan mooy sa tegtal ci nangam doon di aaya bi ci aaya bi lañuy taxaw aaya boobu la fekkee da nga ko bëgg a leeral daa indi yeneen aaya pour leeral aaya boobu ba tey ñu ci tegtal ba ñu ci aaya ba waaye li may wax mooy bañ a tegale ay tegtal yu bari te à dire su fekkee da nga nekk ci aaya ñu taxaw ci aaya boobu te ko loolu jëmuñu ba tey ci aaya naam. Ah, par exemple suñu taxawee ci benn point balaa ñuy jàll ci beneen point point bi ñu taxawoon leer ba. point de point wuute na tegtal parce que benn point mën naa am ay bu ñu paree ci tegtal mën nañoo nekk ci benn point tegtal yu bari mën na jàll. xam nga benn point suñ ci taxawee. bépp aaya boo xam ne day ñëw di jëm ci argumentaire boobu. aaya yooyu dañ koy indi nit ñi mën koo gisal seen bopp vérifier ko seen bopp su fekkee ne dañoo génn ci point boobu dem ci beneen point point boobu it aaya ya nga xam ne ñoo cay wax it ñu wax ca noonu parce que nañ ko jël ci ay point rek soo waxee ay tegtal ak yooyu nañ wax point rek waaw loolu li ma tax point su ñëwee ci ab ci indi aaya tegtal aaya dafay am waju istidlal waju istidlal boobu mën na tam yeneen aaya waaye aaya benn point mun nañ tam tegtal yu bari

point par point. beneen mbir mi mooy ñu ñu ñu moytu am na yoo xam ne amul solo mooy ñu moytu man ak nangam nangam mooy fi pour Mbàkke Sawul Fadanja ñëw ñu pour wax tànkal Quraan mbir yi nga xam ne mooy tasket nag solo nañu ko bàyyi bëri man nii lañ ma xamee xamee loolu lañ ko bàyyi. beneen mbir mooy maa ngi jot tamit damaa gis ne. waaw waaw mbir mooy point ba ñu bañ a dasante. doon na baax tamit. doon na baax tamit ñu bañ a dasante. xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw rek ci point bu njëkk bi nga wax yow da ne ay comme ñu wax man tazkiyatun xam nga nit la indi nga waaw non non waaw yow man waxuma loolu fi man du ñëw di waxtaan ci diine di yow rek laa njëkk waxtaan ak di yow rek laa mos a waxtaan ak. moo yem li def man ak nag naa bañ fii xoolal nga def ak yow man yow yow yow man soo ko bañee man li ci sama yoon yow soo bañee. man lan moo ci sama yoon man. <laughs> non xaaral ma bëgg débat dañuy débat pour lan. non dañuy wax pour dëgg la waaye nag dëgg nag. voilà dëgg nañ léegi nag mooy dëgg pour. man benn condition la am xam sama condition lan la. mooy problème la ay condition la waaw non non tudd condition yow benn condition boobu boo teg waaye mu tudd samay condition. waaw waaw yow samay condition wala sama yoon. d'accord yow wax euh, na la voilà sama condition mooy <clears throat> suñu waxtaan pour dëgg leer buñ ko hmm. sor ko soo ko première condition boo woon mooy buñ tàggatee <laughs> c'est-à-dire ñu si wax nañ ko bàyyi wax ba pare su paree. waaw kii daal wax. loolu bokk na ci li lëndëmal li nga xam ne dafa am vraiment ñëw fii nii pour dëgg daal la leer dëgg mu leer sa làmmiñ bu leer sama làmmiñ gan la ci man na dëgg rek leer kon su fekkee dañuy waxtaan boo dikk mooy ñu jël tegtal par tegtal duñu jógee ci tegtal dem ci beneen fekk pare tegtal boobu ñaareel point bi mooy eh, débat bi dañuy wax ne lépp ñu jël ci alquran suñu dee alquran ñaari mbir moom mooy ne dañuy indi alquran alquran ci luga arab la wàcc kon lépp loo xam ne yéen a dugg fii. non non du ko teg dafa ñu leeral nit ñi fan la tegu ci arab. dafa am dafa jeexal su ma jeex. waaw Cheikh Cheikh Cheikh. am amul patience. waaye yëgën waaye yëgën nañu la gandi. am naa droit si débat teg samay condition. am si d' accord d' accord suñu xool. suñuy def waaw d' accord d' accord. oui dañuy wax ci li nga xam ne moom mooy alquran alquran ci làkk arab la wàcc. ñëwuñu fii pour kenn di wax li nga xam ne mooy gisinam boppam. alquran la su fekkee dañ cee dellu jéem kese mooy ñaari mbir moom mooy dellu ci alquran pour leral alquran alquran boobu pour leeral ko ci wala arab la la la wàcc képp ku mu firil ab al aya dama dina fii wala nga aya bi li lay tekki di nga ma delloo ci lugo ci arab bi mu wàcc tan lay loolu lu mu koy fekke fekke non loolu lépp na bokk ci ni rek a wax te mbir mo ci xel moy dal quran ci xel ñi borom xel la ñëw moy nit ki kon ñet mbir lañ mën a dal alquran ak la arab ak li nga xamne moy xelu euh xel nit et surtout nak ñoy déglunte benen bi mo ku ñu laaju question ku la jexale mu tontu ci laaj bañ ko laaj bañu dugg ci leneen yem ci laaj ba su laajee tamit ñu tontu ko ñu doog a dem ci beneen question mooy loolu laa gis ne mooy condition yoo xam ko tegee ci débat bu jaar foofu débat bu dina leer beneen mbir bi ñu bañ a mu nekk débat bu bu mooy ne mu bañ a nekk débat boo xam ne daa dafay wax yoo xam ne dafay génn kaaru débat ay wax yu ñagas rek wax yu dëgg rek comme ñu wax yi fi jub léegi nii loolu lu sama loolu noonu kuñ ci woo ay woo naan kottu euh, naat ki naan soow waaye bëgguma tey débat bi dayoon na débat bi bëgg suñu jógee mu leer nañ ba ku nekk xam ci que euh, fi nga féete lu taxaw ci say condition ok d'accord euh, xam nga li ngay wax ne loolu man lu ci sama yoon du leer la leen fenn laa ko teg xam yow pay si ñëwee di wax ne maanaam nii la ñuy doxee wala nàngam wala yow nàngam dama lay xamal ne la man duma nit ku nit du imposer dara <laughs> foofu laay waxee ñu waxuma ci loolu man kuma ma man kuma xam benn doxin laa yor li ngay wax ne dëgg moo la ñor dëgg leer mu leeree ci sama làmmiñ ak mu leeree ci sa làmmiñ moo yem ci yow man mii di wax ak yow benn pas-pas boobu laa am mooy dëgg leer loolu moo ma ñor leneen ñoru leneen li nga xam ne moo ci topp mooy li ngay wax ci alquran ma yaa ngi wax ne alquran ci làkkub arab la wàcc li ngay wax naan kenn balaa mi ñëw mu leeral ci alquran alquran mooy leeral boppam du nit di leeral ndax li may faral di wax loo xam ne xëy na loolu ci biir waxtaan bi la arab bi alquran di wax amul benn dëkk bu koy wax ci kaw suuf amul alquran mooy leeral boppam amul lenn loo xam ne suñ koy waxtaan ci alquran danaa la ko waxta duma la indil aaya bu yàlla leeral loola su fekkee ne ab baat laa indil danaa la indil baat boobu aaya boo xam ne da ko cee danaa aaya boo xam ne baat boobu daf fay leere wax ji xam nga lu mu doon mooy lan yow dañoo wax na ndax diine dafa am beneen delluwaay bu dul alxuraan lu am solo mooy yow fexeel ba lépp looy wax nga indi delluwaay bi ci téereb yàlla indi référence bi nit ñëpp mën a dem vérifier man li am solo mooy lépp lu ma la wax danaa la indil delluwaay bi indil la référence bi léegi nag ñëw toog nga léegi mu mel ni léegi da nga ko bëgg a soppi ak kuurub arab ak nangam nangam loolu man du sama yitte fii li sama yitte mooy alxuraan ci arab la li leer te wóor duma la wax benn aaya wax la ci benn baat boo xam ne la muy firi ci arab dama lay wax beneen baat bu wuuteeg lool déedéet loolu duma ko def te it aaya bépp aaya bu ma lay wax it aaya ba danaa la indil aaya ba na mu mate wax la aaya su fekkee dafa am aaya bu koy leeral ma indil la aaya bu koy leeral débat bi daal li muy doon pour man mooy dellu ci téereb yàlla la lu ci waay di wax ne indi waxu yàlla su amee fu mu koy leeral feneen mu indi ko fa man nag su biir wax ci misaal yow soo ma waxee dara soo waxee dara ba pare man ma am lu ma la ci war a laaj léegi man su ma lay laaj man su ma waree wax man ci man man su ma waree wax ma am lu ma la war a laaj danaa la ko laaj soo ma mënee tontu ma tontu léegi nga tontu ma soo ma tontee moo continuer su fekkee ne comme ay wax yu ñagas wala nangam man yàlla dogal na loolu du sama jikko yoruma jikko yi ñëw di wax ay wax yu ñagas parce que am na loo xam ne bokkul ci nite loolu man duma ko doxee waaye nag ci kaw nit ki bàyyi xel moom it ni muy waxee bàyyi xel ni muy doxalee su fekkee ne maanaam su fekkee wax ji yëpp mu ngi tegu ci dal tegu ci respect aw ma ci benn problème waaye nag su jàllee moom leneen la kon man wax dëgg yàlla comme yow yàlla dogal na loolu nga bëgg mooy wax ji leer lépp tegu ci respect moom na nga xam ne loolu nga bëgg man mii loolu mooy sama yitte te it aw ma beneen pas-pas bu dul boobu li am solo daal mooy lépp lu ñuy wax indi référence yi teg ko ñëpp mën ko gis mais man nak deug deug comme ni ma la ko waxe man dal ci ay preuve lay dox lu waaye di waxee ne indi preuve bi teg ko soo ko guddal nak nan comme jaarab naa yàlla dogal na suñ doon waxtan fi ba ginnaw ëlëk du ma la indil mukk benn aya bo xamne dama cey wax lo xamne ne da nekk ci aya ba ak la ma lay wax du doon ben lolu mom yàlla dogal na duma ko ci def inshallah naam awalan moy fi condition débat kenn du ko poser kenn nga ni waxtan yalla da nga say condition su fekkee noonu lay demee kon dama lay doon imposer condition kon ni ñu fi condition euh, bi koy dagguma la de. Ah. yàlla xam a daggante quoi dama ne a taxaw la dama la a daggante. Euh, incha allah dina dina tax mbir yi leer. dama ne la condition suñu koy wax ci débat dañu teg condition pour ñu ko jàll ñaareelu mbir bi mooy arab alquran ci arab la wàcc ñun olof la wax eh, waaw non yow yaa wax moo tam lay tontu ci li ngay wax. non non li nga doon wax naa yow après ñu pare. daf ma finir quand même yow ba ngay wax toog naa la yaa ngi dugg cee coin dama la dagg mais bàyyi ma ma wax quand même subhanallah nañ tey nañ tal rek dañ fay toog pour leeral lan leer soo taree di nga am di nga am taw tontu dama ne alquran ci arab la wàcc la moo tax condition bay lay leeral alquran wàccul ci wolof wàccul ci joola wàccul ci njaago am na dëkk buy làq arab lu alquran di wax amul dëkk bu koy làq loolu jëgwut man li may wax mooy arab ci alquran ci arab loolu wàcc ko la ci arab su fekkee dañoo ñëw mën a ñu wuute ci làkku arab bi daal ne lii firiwut lii nga firee ko lii ma firee ko neel lan moom mën a àtte lu dul arab ba mu wàcc loo indi sa aaya ma ni saf aaya indi al ma indi aaya nga firee ko neen ma firee ko neneen lu ñuy àtte li alxuraan la ñuy àtte non alxuraan ngay indi ma indi déedéet nga firi ma firi soo indee aaya soo indee ab firin ci aaya ma indi ab firin ci aaya waaw ñu ñàkk cay déggoo dama lay indil aaya boo xam ne da koy ma indil la ma nit la beneen aay bu wax loolu du am loolu du mën a nekk. <laughs> yaa Cheikh yaa Cheikh yaa Cheikh yaa Cheikh alxuraan alxuraan tey tey léegi pour débat bi tàmbali tey non non non je ne bàyyi ñi seetaan di arab ah, kon li li jub mooy daal alxuraan lañ koy firi ak wala sa du ko firi arab mooy léegi man li may njëkk a laaj mooy su fekkee naa droit mooy li may njëkk a laaj mhm. mooy alxuraan bii nga xam ne moom ngay mu lay tàmbali wala. laaj wala yow wala. waaw damay laaj parce que débat pour pour ñu dugg ci sujet bi mais yow doo modérateur. non léegi. Euh, euh, déedéet déedéet. <laughs> non yow doo modérateur. non léegi pour damay laaj ab question pour ñu dugg ci sujet bi. waaw non xaaral waaw non non mais loolu du yow da ngay bàyyi kii modéré débat bi. non non non. waaw xaaral rek waaw xaaral rek kii modéré moo laaj. waaw xaaral rek da ngay bàyyi kii modéré débat bi. non Moussa Camara dafay toog déglu Moussa Camara na wax rek yow noppil bu dagg kii. liste dañ ko bàyyi Moussa Camara moom laaj gan laaj laaj maa koy laaj ak yow. waaw non laaj ko moom lan la laaj moom lan mooy passeport ba pare. mais loolu de sama condition. bu ko yaay dicté Moussa bu ko débat man man man ngay débatté Moussa Camara dama am Moussa Camara kon man may laaj. pour ñu tàmbali débat fekk nga bëgg a laaj. bismillah commencé. naam man li ma bëgg a tàmbali débat ndaxte mënuñoo tam waxtaan ci mbir te dëppoo ñu ci base yi mooy dama bëgg xam alquran bii ñuy waxtaanee mooy alquran lan mooy ban yoon nga jaar ba xam ne alquran bi ñu waxtaane mooy alquran bi yàlla wàcce ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah loolu loolu mooy gëm ko gëm mooy sama tontu mooy gëm lan gëm alquran gëm ne lii waxu yàlla la waaw loolu rek la kon nit ki beneen mbir beneen jël daal koy gëm non dama laaj laaj daam foofu laaj la ko. waaw bisimilah waaw. mooy kon mbir bi nit ki beneen gëm bu mu gëm ne loolu si yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko wax kon doy na ko doy na bu doon dalil déedéet man damaa gëm moo ko wax. xaaral xaaral xaaral xaaral du loolu de defal ndànk. ah mais loolu moom day laa ma ñëw xam nga alquran soo ci demee. Eh? yàlla dafa am ay wax yu mu wax ca biir. wax ne afala tadabbaruuna alqur'ana non déggoo sama laaj ju tey bi afala tadabbaru alqur'an boobu laa doon xam noo def ba xam ne wér na dooma tegtaloo aaya boobu laa wax noo def ba xam ne alqur'an la dooma tegtaloo nag ne mu istiqlaal fi maxalli nisaa yaa cheikh dañ déglu tam baax laa jëmee nag ñu ngi déglu baax di ma tontu ci wet waaw mais yow li ngay waxee waxuma la yow li ngay wax li ngay wax dégg naa ko yow te ni ngay waxee ni ngay waxee noonu jaru ko arrêté ba bàyyi rek ma ñëw dina dina leer leer na ci dama bëgg laaj ni ngay wax di xam nga xam nga dañuy wax ni ngay waxee nii di wax di kii nii man du ma jaar am solo loolu loolu loolu jàll nañ ko am solo waxin dafa am solo te su waxin bii tamit man bëgguma ko sëñ bi da ni ngay waxee ne wax bu nga bàyyi mais mënoo ko duñ bàyyi loo kon tontu rek laaj waaw léegi bàyyi ma léegi bàyyi ma ñëw xam nga da nga ne ma alxuraan ji noo def ba gëm ne lii mooy alxuraan ji wàcc ci yonent bi ma xam ko gëm ko gëm yaa ko wax may la gëm ko. ah. waaw may la gëm ko mooy sama tontu. gëm ne waxu yàlla. waaw léegi ma ne la ndax léegi ku ñëw ne la man damaa gëm ni na wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noo koy mën a dàqale loolu. léegi man ci man ci li ma gëm di téereb yàlla. lii waxu yàlla. ma ca demee yàlla dàq yow li nga wax. dàq la. dàq yow wax ji nga maanaam beneen wax bu wuuteeg li ci téereb yàlla nga. kooku loolu wax. kooku kooku nee na su ma demee ci waxi sunna yonent bi sala mu dàq yow la ñu wax te yonent bi yàlla ma ko yónni waa déedéet waa defal manque rek xamul manque laa def manque yow lay dégg waa xaar waa xaar ma ñëw yonent bi waaw du moom mooy dëggal alquran ah yéen dëggal alquran kan mooy dëggal alquran alquran mooy dëggal yonent bi alxuraan kan ma ko indi. waaw xaaral rek defal naa ko ma ñëw yow kay bàyyi rek yow di xam nga yow yow li ngay def nii mel ni interrogatoire déglu rek man da nga may bàyyi. waaw waaw kay alxuraan. moom mooy dëggali yonent bi. yàlla dafa ñëw si si alxuraan dafa wax ne. wa in kuntum fi raybin. mimma nazzalna ala abdina faatu bi suratin min mislihi. waaw. su fekkee ne da ngeen nekk ci werante ci li nga xam ne moom la ñu wàccee ci suñu jaam bi mu ne indi leen ab saar bu mel ni yosam moom bu mel ni bosam la lay wàccee ci moom jaam bi lan la lu wàccee ci moom mooy ab téeréem kon foofu yàlla ka lay dëggal alquran lay dëggal wala boppam wala yonent bi lay dëggal déedéet la ci lan la koy dëggale maanaam doon gi mu doon ndaw lay dëggal la la la yàlla wax وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا واو فك دا غن سيكي فك تي لو واتي تما جامبي قال لي دغال فوف لا ني دغال موي القران لي دغال تما لاج بيم لا لاج موي القران دفال باك لا خا باي ما نيو رك لي ماي واخ ما خمنا با دغ رك لا لا باي دو من دا خا رك يونت بي لي دغال موم تي بوبوب نكا لا كوي دغال ngir lamu ñew di len ko wax ñu gëm kon yonent bi lay dëggal ne moom ci boppam ndaw la waaw parce que soo demee ci alxuraan yàlla dafa indi ci ay barab yu wuute yaa Cheikh sama laaj bi nag ma laaj mooy léegi aaya yooyu noonu ñu di dëggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañ xam ne yow li aaya la yonent boo ko wax loolu tontu naa la ci ba pare dama ne danga nga ne ma naka nga gëf ba gëm ne lii nii mooy alxuraan bi wàccoon ci yonent bi may la gëm naka def mooy ne ma naka nga ba xam ne lii mooy li wàccoon ci yonent bi may la gëm gëm waxu yàlla claro uh-huh. may la yonent bi du moom mooy dëggal alquran alquran mooy dëggal yonent bi ndax yonent bi bi mu ñëwee gi wax dañ doon sikki sàkk ci moom ndax ndawul yàlla wala déet uh-huh. Uh-huh. yàlla ci alquran soo demee ci suuratu raab yàlla mooy wax ne yàlla ci boppam mooy wax ne ñu ah, wér dañ doon wax ne waaw waaw mais yow lii la ñuy waxtaanee ci alxuraan alxuraan kii wala. li li wax nii yaa ngi may tawlu na li ma la tontu leer na yow da ngaa ne ma. non su nekkee li nga tontu non ma ma leeral lii ngay def nii li nga li Moussa doon wax sorxo sorxo mooy lii man tam man mënoo maa sorxo yow ah, da ngaa laaj ab laaj da laaj ab laaj. ku may tontu ca rek <laughs> kon tontu non wuy ba. jot li ko mën a laaj. waa ne defal li may sàkku rek. mooy ñu bañ ko def débat général wax nii di sànni man mooy. bàyyi ma ñëw mooy da wax ne ma. yow noo xamee ne wax jii mooy wax ji ñu wàccee woon ci yonent bi ma ne la gëm ko sama tontu mooy gëm ko uh-huh. nga léegi nit su ñëwoon ne la man nag sunna yonent bi laa gëm ma ne la su ma demee ci loolu ma gëm ba pare li nga xam ne gëm naa ne waxu yàlla ba pare su ko gëmee ba pare su ma demee ci loolu man yow ma ne noo xamee ne lii mooy li bàyyee ko may uh-huh. la gëm ko su may lay gëm ko tontu naa léegi nag da may bàyyi na argumenté <laughs> da nga ne ma yow noo xamee ne lii mooy li bàyyi koo woon lii lii la yàlla wàcce woon ci yonent ti sëñ bi loolu loolu leer na waaye li ma la wax ne nit ki su fekkee dana ma gëm sunna yonent bi sallallahu alayhi wa jublu dama ca wax mooy su fekkee nit ki def na dama gëm wax gii nii yonent bi sallallahu alayhi moo ko wax kon waxi yonent ak wax yàlla mënut a kon nooy def ak kooku. non non non déedéet déedéet soo ñëwee ne ma yonent bi wax jee ñuy wax sunna ay wax am waaw ne moo ko wax. ñu ne foo a teg ma ne la gëm. Ah, non du benn de. yow mën ah, nga wax gëm waaw d'accord wax ne da nga ko gëm. waaw gëm yonent bi da nga koy gëm di. waaw waaw non waxuma loolu waxu wax na wax ne waxu yonent bi nga ne yow da nga ko gëm comme man ni ma waxee ne dama gëm ne lii moo wàcc. non dama loolu exemple la man waxuma loolu exemple la dama la bëgg wax ne fi ngay jaar a wax ne sa tontu bi moo teguut ci dara ndaxte nit ki soo ne ko man alxuraan laa a waaw léegi yow waaw léegi yow waaw léegi yow waaw dafa laaj. mais yow du dang ma laaj yow du dang ma laaj. waaw mais laaj mais laaj bi pour. waaw mais soo ma laaj pour pour pour la. waaw mais soo waaw wax continuer soo paree nga dem pare nga. non soo paree nga dem pare nga. non mais mais yow li nga ah, eh, bi. gis nga xam nga yaa ngi woon ci ah. wax dëgg yi ma ngi seetal li may waxtaanee leer na nañ ah. dama laa la dama laa laaj laaj pour nga tontu. waaw ah, Alaaji Moussa waa léegi déggul Alaaji Moussa ma wax ak moom Alaaji Moussa. allo. waaw <laughs> mais sa waa ji li muy def lii lii lan la waxtaan la wala lu mu ci bëgg. allo yéen a ngi may waaw man eh, yow. waaw non non déggul rek yow Ndiaye déggul yow bëggoo waxtaan. man yéen a ngi may eh, eh, waaw yow yow bëggoo waxtaan. waaw non non déggul rek yow bëggoo waxtaan. allo Moussa. allo. waaw yéen ak may dégg. waaw yow kii li muy def nii lii mooy waxtaan li muy def waxtaan la nii. ah man yow li nga def mooy waxtaan yow. waaw yow laaj ngay tontu ci ngay tontu ci wet bi bu ko ci wuri. da ngay tontu waaw non déglu rek man daa gasante ma déglu waaw déglu Alaaji Moussa laa. yow yaa gasante yow bàyyi yow yow yaa gasante. lii yëpp li ngay wax nii yëpp ay fem la ay fem la pour bañ a tontu laaj bi na laaj ay fem la rek boo da ngay woo Moussa di leen Moussa Moussa di déglu dañ laa laaj laaj bu leer. waaw mais. laaj bu leer mais tontu ma sama laaj. bàyyil yow da nga yow li ngay def loolu xam naa ko. léegi baax ah, na bàyyi bàyyi. Ah. Moussa Moussa. allo. waaw eh, eh, Moussa li ñuy def nii yow ban jàngat nga ci. fuck that shit. allo imam allo waaw allo yaa may dégg waaw maa ngi dégg de man maa ah, man imam wax dëgg fa yàlla man dama xaw a jaaxle de waxtaan nu mu demee nii waaw Moussa dama ko laaj ab laaj pour uh-huh. laaj bi daal di leer uh-huh. mais gis nga ma koy laaj li muy tontu bokkut ma koy leeral sama laaj mooy li may laaj ak li may tontu moom bokkut laa uh-huh. laajuma ko alquran xam nga ni soo ko li ngay wax nii lu wa lu ko wax ne alquran la mu jëlaat ma loolu dima ko dima jël li ma koy laaj ñu ko alquran di ko teg te loo pour mën alquran loolu loolu laaj. xam nga xam nga loolu mooy istiqlaal bu xalin nii sax. Euh, xam nga doonoo waxtaan dara dépend ni ñu déglu wonte d'abord déglu wonte bi loolu rek d'abord arme la te dafa baax quoi léegi nag comme que islam tamit dañuy waxaane nañ déglu wonte rek. waaw Moussa dama ko déglu dafa laaj dama ko laaj mu tontu ne gëm ma déglu mu yeggale mu ne ma gëm. te tontu na ma bëgg woon ko la sa tontu baaxul ma tàmbali di ko leeral mu continuer détaillé dama noppi man ko nee na tontu muy gëm kon laaj bi nag foofu la yem tontu foofu la yem ma bëgg ko leeral ko tontu boobu noonu wérul mu daal di koy indi exemple di ko loo xam day impliqué ay waxam mu commencé di leeral waxul waxul soo ko laajee cinq minutes. ba léegi ne tontu pat na pare na. wala so waxee nga laaj ko cinq minutes mu wax ba pare. moom tamit après ah, mu laaj la tamit wax cinq minutes yow tamit nga tontu ko. c'est bon ñu tontonte nu kii neen déglu woon ay mag leen. xam nga bu nu def comme ñu ndaw ñi di def si fii wala kii loolu lay daw. waaw allo cheikh bi. ok asalaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi jégalu de man maa. Ah, man maa coupé léegi affaire bi pour. Euh, wàññiwaat affaire yi tuuti teg ko pour nu mën a waxtaan ku si nekk man maa ko def quoi léegi comme nu ma ko waxee wax naa ko ko léegi nee naa ko nañ dégluwante mm-hmm. nañ dégluwante su laajee lu muy laaj cinq minutes mu wax mu bàyyi la nga toot yow tamit soo soo pare yow tamit nga laaj ko cinq minutes moom tamit mu tontu la yaa ngi comprendre comme ça nu daal waaw non s'il man ni ma déggee nii ni ma mm-hmm. déggee nii moom ni muy waxee mm-hmm. ni ma déggee nii muy waxee moom buggul wax ji leer léegi kon moom na laaj ni moom ko xaaral rek moom na laaj na laaj kon na raccroché yow nga dugal ma man ma tont xam nga léegi laaj na ab laajam ba pare su ko soobee mën na raccroché man ma leeral man li may wax li ko voilà wa boobu sax tamit comme ça keneen du intercepter xam nga voilà ça nga xam ne doy wax comme ni muy def ni bëgg a yàq waxtaan bi ni muy waxee noonu voilà comme ça kenn intercepter intercepter bosom lool voilà c'est ça su ko defee léegi ñii seetaan su ko defee léegi ñii seetaan ñoom dinañ mën a juger seen bopp moom laaj na ma léegi laaj bi mu laaj may indi tontu mu bëgg def noonu loolu la ñuy wax sorko sorko te wax dëgg yàlla kooku du man léegi dinaa ko jox cinq minutes mu laajte su ma paree ma ñëw laaj na ma pare bàyyil ma tontu laajam ba pare bàyyi léegi yow bàyyil ma tontu laajam mhm. ba pare moom mu duggaat mhm. su ko defee moom su waxaatee ba pare man ma ñëwaat ok amul problème waaw ah, kay léegi su fekkee ne man mën naa continuer ma continuer. waaw continuer continuer nu jox àpp comme ça moom mu ñëwaat. d' accord macha allah sant yàlla. Hmm. Euh, waaw kay xam nga moom daf ma laaj ni ma. Hmm. yow naka nga def ba xam ne euh, maanaam alquran ji moom la yàlla wàcce woon ci yonent bi mu jottali ñu ko. Hmm. ne ko gëm ko. ma ne ko dund léegi sunna man it loolu dama gëm ne waxu yonent bi hmm. ma ne ko man ginnaaw bi ma gëmee ne lii waxu yàlla ma dem ci biir waxu yàlla fekk fa luy dàq moo loolu waxu yonent bi hmm. ndax moom lim jàpp mooy lim jàpp mooy yonent bi mooy dëggal alquran du yonent bi mooy dëggal alquran alquran waxu yàlla la alquran mooy dëggal yonent bi te li ma wax mu am solo mooy lépp lu may wax rek maanaam na nit ñi dem maanaam vérifier les références na dem ci aaya boobu ma ko wax sànq mu nekk ci sootu baqara aaya vingt trois mi surat deux aaya vingt trois yàlla dafa wax ne wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina Mm-hmm. faatu bi suuratin min mislihi wadduhu shuhadaakum min dunillahi in kuntum sadiqin yàlla ne su fekkee ne ñun dañoo am lu ñuy werante wala li ñuy sikk ci li nga xam ne moom la ñu wàccee ci suñu jaam bi mm-hmm. mu ne kon na ngeen indi ab saar mel ni moom bosam mm-hmm. ma léegi yow yonent bi moom ci boppam su fekkee ne nit ñi dañuy sikki sàkka te la nga xam ne moom lay wax yàlla dane loolu muy wax noona na ngeen indi lu mel ni na ngeen indi lu mel ni moom loolu muy wax na ngeen ci indi benn benn saar na ngeen ko indi nga xam ne yonent bi moom ci boppam alxuraan mooy ñëw di dëggal yonent bi ci ni koy dëggalee mooy kiikat yàlla doo koy waxloo mu ñëw ne moom yàllaa koy waxloo yéen su ngeen weddee ne yàlla moo koy waxloo hmm. wax yooya mi wax fexe leen ba indi ci lu mel ni benn saar bu mel noona hmm. ndax yonent bi bi mu ñëwee nit ñi dañ doon sikki sàkk ci moom ndax ndawul yàlla la wala déet xam nit ñi balaa ñuy gëm ne li ngay wax yàllaa ko wax hmm. nit ki balaa ñuy gëm yow li ngay wax yàllaa ko wax dañuy gëm ne ndaw nga yow ba pare suñ gëmul ne yow ndaw nga mënuñoo gëm ne li ngay wax ci yàlla bàyyi ko mm-hmm. kon yonent bi du moom mooy dëggal waxu yàlla déedéet mm-hmm. waxu yàlla moo koy dëggal mm-hmm. ndax balaa ñuy gëm ne moom li muy wax yàllaa ko wax dañuy gëm ne moom ndaw la ba pare te bi mu ñëwee yàlla moo ko jàngale ku dem ci sóotu rax bi moom laa doon mujjee wax bàyyil mu yegg mi suura treize aaya quarante trois mi aaya ba ca mujj ñi nga xam ne dañoo weddi dañ ko waxoon ne ko yàlla dafa wax ne wa yaqulu alladina kafaru lasta mursalan qul kafa billahi shahidan bayni wa baynakum wa man hindahu hilmul kitaab yonent bi moom ci boppam mhm. ñi nga xam ne dañoo weddi dañ koo waxoon na ko yow doo ak yonent mhm. yàlla wax ko ne ko waxal ne man yàlla doy dama seede sama diggante man ak yéen mhm. ak ñi nga xam ne xam-xamu téere ba mu ngi ca ñoom kon yonent bi alquran moo koy dëggal moom hmm. waaye du moom mooy dëggal alquran macha allah yàlla mooy dëggal yonent bi waaye du yonent bi mooy dëggal yàlla hmm, macha allah say cinq minutes alquran waxu yàlla la say cinq minutes mat na léegi xaar ma jël ko nu daal kon noonu la demee macha allah waaw kay imam du dégg nga dégg nga lu mu wax de waaw ma ne du dégg nga lu mu wax waaw salaamaaleykum waaleykum salaam mooy lan moom kay lu mu la tontu woon sànq lay tontu léegi yow yaa amaat cinq minutes yoo koy laaj comme ça léegi moom su paree mu laaj la quoi waw kon ma li ma doon wax foofu mooy mm-hmm. euh, alquran bii nga xam ne moom moo nekk ci mosag bi ñu koy ñu koy jàng euh, wax koo xam daa jàkkaarloo moom ne ko buum alquran su ne ko wax ma lan mooy tegtal ne alquran bii ngay wax ni wér na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy alquran bi mu jëlee ci yàlla sunu borom mooy li ci nekk euh, tàmbale ci fatiha banaas ni lépp ci yàlla subhanahu wa taala jógee yonent bi la ko Mm-hmm. la ko jox nit ki soo ne ko damaa gëm mu ne la man gëmumu ko nan nga koy fir indee tey firnde daan na ko lii alquran bii ma wàcc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. nit ki amul ci benn pexe lu dut daan ne alquran bii de li ñuy firndeel ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Muhammad moo ko jóge ci yàlla mooy ne dañ ko tofalee tofalin boo xam ne eh, bi tawaatur ay nit ñu bari ñu bari ñoo ko jëlee ci nit ñu bari ba ci sunu jamono ji ci anam goo xam ne amul kuy siki sàkk ni ñooñu mu ñoo dajaloo ci ci ay ci ay nar su boobaa nit ki loolu na tontu loolu rek moo tax ñu gëm ne lii nii xam ne lii mooy alquran jëlee ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su boobaa nag ci ñuy jëlee jëlee ci biir mun kaa tolo te leneen nag kon beneen mbir boo xam ne mun nañ ko amee noonu jëlee ko ci ñu bi sallallahu alayhi wa ci anam goo xam ne dafay nit ñu bari ñoo koy solo jëlee ko ci nit ñu bari ci anam goo xam ne mënuñoo daje ñoom ñëpp ci daf naan euh, ñu daal di koy dañ koy gëm comme ni ñu gëmee ci comme ni ñu gëmee li nga xam ne moom mooy moom mooy alquran loolu moo taxoon ma laaj laaj bi mooy ni ni ñu gëmee alquran xamee ne alquran bi am mën ko layee nan lañ mën a layalee li nga xam ne tamit mooy lenn ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak mbir yu baree bari yoo xam ne nit ñi ñu koy def di ko jaamoo yàlla suñu borom na alquran saxee nu toll noonu la yoom la mbir yooyu daal di Euh, daal di daal di saxe noonu tax ma laaj laaj bi kon mën nañu jàll ci beneen léegi yow da nga am beneen laaj boo ko bëgg a laaj wala léegi moom na la laaj. oh débat la léegi. Euh, <clears throat> naam mun na laaj ko neexee. Hmm, parce que comme que de sànq déggante woo leen moo tax léegi ma leen di jël ku si nekk benn par benn xam nga moom nekkul si ligne bi quoi parce que yow cinq minutes nga am pour wax. soo soo waxee ba pare léegi moom mu daal di dugg jël cinq minutes yi tamit tontu si. moo tax xam na ah ok kon si live bi nga koy gisee. tey boog ba après dama coupé parce que man li ma leen wax déggu ma koon. alo ah allo. kon soo soo waxee par rapport da ngay coupé loolu la. voilà parce que comme que déggoonte woo mayante woo leen te mënoo kii te xam nga nit ñi tamit ñu nekk si suuf ñoo ngi naan dañoo bëgg comprendre moo tax léegi may def nii comme ça ku nekk am cinq minutes am mën a wax xam nga kenn du la wax kenn du la li nga xam ne moom mooy moom mooy euh, <clears throat> li tax ma laaj laaj bi loolu la laaj taxoon ma laaj laaj bi mooy alquran bii ñuy jàng hmm. jël ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ay riwaaya Mbàkke Saaxo hmm. jëlewu ko fenn xamut ne dafa jóge ci alquran lu dut ne daf koo teg ci a ah, dañ ko fekk fii ñu koy jàng ñu am ay mbooloo yu bari ko jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dama gëm mbir bi su fekkee ne lii ne alquran bii ci yàlla subhanahu wa hmm. nit ki taxaw moom ne man dama gëm ne wax yi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam la lu jóge te yonent bi sallallahu alayhi wasallam wuute alquran kon li nga may wax ni da wutey wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu dama ko gëm kenn ko dama ko dama ko gëm ñom lëndi lëndi atte leen mëna atte rek mo ñu xolaat ka wax li yonent sallallahu alayhi wa sallam moko wax yan anam la jaar nan la mëna a tegteloo koo xam ne gëmut leral ko ko li yonent mo ko wax ka wax de li alquran la nan la mëna a tegteloo ba wax ki nga xamni gëmuma alquran pour daal koy firndeel ni ko li alquran la mais soko ko bëggee ñëw ne ko nak yàlla subhanahu wa taala dafa ne te moom mu lay laaj sa ba lii gëmuma ko nga ko yàlla nee na te moom nee na lii yàlla wax gëmu ko nga war ko teg te loolu a jub fekkoon ne même rek ma ñëw ak moom ko wax ci ma lii fooy teg ne yonent yi moo yoon la boo xam ne du yoonu kuy wut dëgg loolu yoon la boo xam ne nit koo xam daa bëgg a daw laaj bi ndax xam na laaj bi fu ko jógee wax loo xam ne wéru wax ñu ko ay gëm ay tegtal la ñuy laaj fii ku nekk di wax li nga gëm ko duñ du fi du fi jóge beneen laaj bi ma koy laaj wala ma ko bëgg a laaj ndax alquran dafa am benn aaya buy wax ne ab aaya dafa am aaya buy wax ci alquran ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naam duñu dellu ci moom ngir daal di dégg alquran boobu wala ma tëggaat laaj bi mooy alquran bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jot ndax ay xuruuf kase la ay baat la yu ñuy tari wala dafa ànd ak ay ay sens موي من نكو دغانين موي يونس بي صلى الله عليه وسلم القران بامو نيوي دكو يالا جوي دا داكو تري رك ديم ولا اكسبليكي نيت ني القران بلا لامي ديك ما شاء الله دا فاي من دا فاي دا فاي دا فاي داو نو نو شيخ موسى نو نو لير نا دغنا لغي موم دامي ديك وا دغنا نعم لير نا نان لغي موم نو دوغول كو مو دادي داف سي تونتو باسكو دا ميني ساي 5 مينوت ماتنا نعم تفضل درجة اوكي السلام عليكم وعليكم السلام شيخ بي comme boobu waaw kay macha allah dégg naa ko. waaw ah, xam nga moom li mu wax. Hmm. ci bi ñuy wax sànq ci ginnaaw ci loolu laa ko doon tontu. Hmm. parce que dana léegi man su ma toogoon ak koo xam ne gëmul ne li waxu yàlla. Hmm. su su su fekkee dafa toog koo xam ne gëmul ne lii waxu yàlla naka laay def. ba mën xam ne moom lii waxu yàlla la. loolu dafa am loo xam ne mooy li mat xam xam nga yonent bi moom ci boppam bi mu ñëwee mm-hmm. lam doon wax mm-hmm. ñam doon waxal gëmuñu woon ne la wax waxu yàlla mm-hmm. lam doon wax ñam doon waxal gëmuñ woon ne loolu waxu yàlla la moo tax yàlla da koo indil da ko indil ay wax ne ko nit ñi su fekkee ne dañuy werante ci li nga xam ne moom la ñu wàccee ci yow nañu indi ab saar bu mel ni yow saar yi nga xam ne yow moom nga indi yow parce que tey avant loolu yàlla da ko njëkk wax ndax dafa ñëw di wax ñu ne ko ñuy wax ne yàlla di laaj wala boog ñoom dañoo wax ne da ko sos parce que yonent bi mu ñëwee di wax njëlbeen gi nit ñi dañ doon wax ne li wax moom moo ko sosal boppam ay wax la وامنا فنان ني واخنا لي اي استوار لا دي واخ وخالو اساطير دي واخ نان لول اساطير الاولين لا دي واخ نان اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا دا ام لو خامي دا ما تا خام موي سو ديمي سي القران مانام لي خامني موم لا دون اك نيام دون واخال سيتوياسيون بيغا خامني سي لا لين فيكون مو نيو دي واخ ني نكو دير دي واخ يالا يوني وودا Hmm. mooy aaya bi ma wax léegi mi suura treize aaya quarante trois hmm. dañ na ko yow doo ndaw yow doo yonent ñi mag ñi nga xam ñoo ko doon wéddi ñoo na ko yow doo yonent yàlla ne ko waxal ne man yàlla doy na ma seede sama diggante man ak yéen ak ñi nga xam ne xam-xamu téere bi mu ngi ca ñoom muy benn yàlla ñëw wax ne wala boog da ngeen di wax ne moom da koo sos mooy lim loolu loolu kenn ku ci ne mën a dem vérifier ko mu ngi nekk ci ba tey surat onze aaya treize yàlla ne am na ftaraahu wala boog dañoo wax ne moom moo ko sos yàlla ne ko léegi suñ boroom ne ko waxal ne xul faatu bi ashri suurin mislihi muftarayaatin wadduhu man istataatum min dunillahi in kuntum saadiqin mu léegi ne wala boog ñoom dañoo wax ne moom moo ko sos yàlla wax yonent bi ne ko wax leen ne leen comme léegi dañuy sikki sàkk ndax lii waxu yàlla wala du waxu yàlla léegi yàlla ne ko wax leen ne leen nañu indi fukki saar yu mel ni yow sa yos yoo xam ne ñoom ñoo ko sos te it nañu woo ku leen ci mën a dimbale kudut yàlla su fekkee ne dëggu nañ kon man su ma ñëwee ne parce que yàlla dafa wax parce yàlla dafa wax fukki saar moom la wax fii ci surat onze aya treize muy suratu Hud aya treize mhm. mu yàlla ñëw ginnaaw bi mu waxee fukki saar mu ne benn saar ci surat Baqara aya vingt trois bi nit ñi di sikki sàkk ndax lii ci yàlla bàyyi ko wala nangam yàlla da koo waxoon ne ko wax leen ne leen dañuy ñoom dañuy indi fukki saar yu mel nii wala dañuy indi benn saar bu mel nii kon képp koo xam ne ba jamono bii ñu toll yaa ngi sikki sàkk ne lii ci yàlla bàyyi ko waa dañ naan la yow créer fukki saar rek wala nga créer benn saar bu mel nii bu mel nii ci alquran te yàlla yemu ci yàlla ñëwaat wax ne afala yatadabbaruuna alqurana walaw kaana min hindi gayri llahi la wajadu fihi ixtilafan kasira yàlla mu ne ñu ndax boog da ngeen dul wala boog da ngeen dul settantal alquran wala boog da ngeen dul settantal alquran ndax su bàyyi ko woon ci keneen ku yàlla konoon dangeen ca fekk ay wuute yu bari kon yàlla lu mën a xew indi na ay nattukaay yu ñu mën a xamee ndax lii lu wér la wala lu wérul li ca jiitu mooy su fekkee ne yéen da ngeen a gëm ne fekkee dangeen ngeen a gëm ne bàyyi koowul ci yàlla yéen indi leen fukki saar maam sof leen fukki saar yu mel ni yi nekk ci alxuraan hmm. ba tey su fekkee ne léegi dem ngeen ba fukki saar mënu leen koo sof leegi yéen sos leen benn saar indi ko léegi su fekkee ne ba tey yéen loolu mënu leen ko yàlla ne yéen da ngeen du setantal alquran xam yàlla wax léegi bi wax suñu borom indi ab laaj wala boog yéen da ngeen du setantal alquran ndax alquran yi su bàyyi ko woon ci keneen ku dut yàlla konoon da ngeen ca fekk wuute yu bari ba tey tamit alquran jooju mu ne kon dañ koo jëlee ci mbooloo mbooloo jëlee ci mbooloo jëlee ci mbooloo ba mu yegg si ñun waaye ndax mbooloo yooya nga xam ne ci ñoom la jaar ba yegg ci ñun ndax ñoom loolu ci seen coobare la yegsee ci ñun wala ndax ci coobare yàlla la yegsee ci ñun. Mm-hmm. yow sa cinq minutes. ndax yonent bi ci boppam. soo amee laaj boo koy laaj comme ça man su ma moom mu déggaale ko mu mënaale koo tontu. waaw léegi xaaral ma yeggali moom ci li muy wax parce que moom mm-hmm. parce que laaj li mu mujjee laaj li wax loolu danaa ci ñëw. Mm-hmm. parce que léegi moom maam téere bi yegg gi mu yegg ci ñun. loolu dafa am loo xam ne yàlla da ko wax ci biir alquran kenn ku ci ne mën na dem vérifier ko li may sàkk mooy képp koo xam ne yaa ngi wax rek li ngay wax indil say référence teg ko yàlla ci boppam dafa wax ci alquran ne yàlla dafa wax ci alquran ci sootu mooy ne sootu anaam muy surat six ay 19 yàlla wax ne xul ayu shayin akbaru shahadatan qulillahu shahidun bayni wa baynakum léegi nga xam ne yàlla yontu bi lay wax loolu dana ko xul ayu cheyin akbaru shahadatan qul illahu shahidun bayni wa baynakum mu teg ci ne wa uxiya ilayya hada alquranu li unzirakum bihi wa man balaga yonent bi ci biir wax ji moo wax ne yàlla moo wax yu alquran ji mu jëm ci moom ngir mu xupp leen ci ak ku mu jot kon ñun ñii toog fii man mii toog fii tey loolu nga xam ne moom la yonent bi wax foofa ci biir téere bi te yàlla waxloo ko ko ak ku mu jot man ci noonu man la ma jote bi ma jotee nag yàlla dogal man ma gëm ko su ma bëggee xam ndax lii lu wér la lu bàyyi koo ci yàlla wala lu bàyyi ko ci yàlla la yàlla waxoon yonent bi mu wax ko ay nitam ca jamono booba mooy nañu indi fukki saar yu mel ni yi nekk ci alxuraan wala ñu indi benn saar ndax lu mën a xew lii su bàyyi ko woon ci keneen ku dul yàlla danañ sa fekk ay ixtilaaf yu bari muy ay contradiction yu bari ay wuute yu bari léegi nag leneen li muy wax mu ne nit ki tamit su jugee fee ne waa ma ne damaa gëm ne lii yenentu bee ko wax muy sunna si loolu mu wax ne yenentu bee ko wax muy sunna si nee ko moom moom fekkee mu ngi dégg yàlla ci boppam moo xam lene téere bii li ci nekk loolu mooy waxu yenentu bi téere bii mooy waxu yenentu loolu na dem suratu xaqa mu nekk surat 69 mu dem ci lu commencé aaya 38 ba fa saar bayam yàlla wax ne fala aqusimu bima la tubsirun wa ma la tubs nga xam ne moom su demee ci sootu xàq ki su demee su demee sootu xàq yàlla ma wax loolu yàlla moo waatal boppam ci li nga xam ne gis nañ ko bima tubsirun wa ma la tubsirun fala aqusimu امام جلول الو والو واو léegi yow dégg nga waaleykum salaam dégg nga léegi lu mu wax. dégg naa li mu xam nga li jubluwaay bi mooy moom daa bëgg di indi ay aaya yu bari pour ñi déglu xamul jàpp ne mi ngi tantôt ay aaya li muy tontu li mu ko laaj ba tey bokkut man laajuma ko ku jàkkaarloog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax nen na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen indi lay li may wax yàlla jóge li ma koy laaj. mooy alquran bii ngay jàng nii loo xamee ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam la jóge yàlla subhanahu taala ndax benn yoon benn yoon benn yonent la waxal ndax yàlla su fa junni alquran bii nii mooy alquran bi yàlla subhanahu taala wàccee ci muhammad naka la nit ki nan fan lay jaar ba mën a layal nit ki ne ko alquran bii ma téere muy mushaf bu tàmbalee fatiha dem ba ba naaj lii nii la yàlla wàcce ci ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam keneen yor na ab ab quranam ca daal di koy tuddee ne Qur'an bi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la jóge indi tay yoo xam ne di nga fekk aay yu nekk ci mushaf yi nii mu indi fa yeneen aay yu wuteeg dolli ko ca nga ne ko lii nii jóge wut ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nan ngay jaar ba ne ko lii moom ñun xam nañ ne ci yonent bi sallallahu alayhi la jóge wute nag ka nga xam moo jàkkaarloog yonent bi sallallahu alayhi wa yeneen ne leen yàlla moom moo wàccee lii ci man ñu bañ te wanu leen benn nekkut benn difficulté lan wax yàlla sontaan li mu dëggalee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko yónni bari na ay anam yu bari xar na li nga xam ne moom mooy moom mooy weer bi ci seen kanam ni ñu daal di daal di daal di gis def nañu kéemtaan seen kanam daal di gis jam nañu weddi ko mu dem Isra nañu weddi ko mu ñëw yonente bi sallallahu wa sallam ñu koy laaj mu leen di nettali mbir yu bari yoo xam ne yàlla jaan ku dëggal yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne yàlla moo ko yónni te ñett gis jàkkaarloo mais ñun gisuñu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñu dañoo ñu xëy rek gis ab mushaf ñu bind ci ay aaya bind ci daan ne aaya bi nee na yàlla moom mooy sàmm alquran ma bëgg a waaw léegi yow man lu ma xamee ne aaya bii nii ko wàcce si yonente bi sallallahu alayhi wasallam lu ana loolu ak naam ñi jàkkaarloog yonente bi moom mu leen di wan ne lii yàlla sontal moom yónni loolu kon ba tey tontu sama sama laaj sama ñaar laaj bi tey tam tontu ko sama ko laaj mom limi def moy dang koy laaj ab mbir mu andil yenen ayu wax leneen man limako ma ko laaj moo ci alquran mo ci alquran tan la yàlla subhanahu wa taala waxe ci alquran daa ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nam de suñu delu ci mom ngi dégg alquran bob wala ci beneen benen laaj moy ndax yàlla subhanahu wa taala yonent bi daf ko yónni kasse mu tari ndax yonent bi da doon tari alquran kasse dem yonam wax wala ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da dan firil alquran wa dan tek alquran di wax nit ñi maana alquran yàlla subhanahu wa taala mo wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun gëm nañ ay yi mu tudd yàlla subhanahu yonent bi du wax du wax du wax lu yàlla waxut waaye yàlla subhanahu wa taala waxut fen yàlla subhanahu wa taala waxut fen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lamuy wax kasse القران kese la la doon yàlla la mu wax mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam يالله سبحانه وتعالى موكو موكو وحي يالله من وحي لنتبي صلى الله عليه وسلم هو هو الى وحي يوحى يالله سبحانه وتعالى لو وح دكو وحي تيلي حبنا وحي انا بين بير ما هو كوي فاتل ريك موي اي سكوي جانغ موي باي خل لها مقار يلحبو ده القرآن عرب لا وحي وحي قبو وحي تي عرب موتخ نور فوتاري نمو نيوي يالله يعني سبحانه الذين آتيناه الكتاب يتلونه حق تلاوته nga xam ne na wàcc alquran ñu koy jàngee nañ ko war a jàngee donte gëm ko da ciy def jëfi bokk waaye jàngin bu wér su na waxee xaa nga wax a wala a nga wax xaa dafay nekk loo xam ne dafay changé day changé sens su bëggee nag ñu toppat aay bi wax benn par pour daal ko ci pour ci noonu pour mu jàng alquran ni ko yàlla subhanahu wa taala wàcc daal di bañ a euh, changé li nga xam moom mooy moom mooy changé mooy sensu alquran yàlla subhanahu wa taala dafa wàcc ci yonent si sallallahu alayhi wa sallam ñaari mbiir mooy alquran ak sunnam يلا مون وحي النبي صلى الله عليه وسلم في القران تنيو ولقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه يلا مون النبي صلى الله عليه وسلم مو نيك تير اب موديل كيب كو خام موديل موي كو خامني دا فاي دانكوي خول جيس كو من جيل تي موم اكزامبل ولا ني نيكال لا مو ديف غو مون كو خول جيل ديف جيل ولا لان نغا جيس لان نيكال تي موم نغا جي فيكو النبي صلى الله عليه وسلم القران داف كو تيكل نيت ما كاي لاج موتا ما كاي لاج لاج بي نما تنت لك تنت بلاد مو تنت تيا تفري ويلا سبحانه وتعالى القران انا انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه تروه فيها باذن ربهم من كل امر الى اخر آه السوره يلا نينا قفوات القران تبن بيس ونتبيس ليله القدر لوات القران يلا سبحانه ما يوخ يلا ما يواني دفوات القران تقدي ليله القدر mu ne laylatul qadr gudd woowu moo gën junni junni weer ma bëgg a xam man mi jullit la dama bëgg xam mooy ci alquran fan la yàlla subhaanahu wa taala waxee fan la yàlla subhaanahu wa waxee ci alquran naam ne fan yàlla subhaanahu waxee ci alquran ne ñu joxoon ñu ne bis wala guddi gi mooy gudd laylatul qadr te loolu ma ko soxla ndax guddi goo xam moo gën junni guddi ba gën a xam ban guddi la wala ci yan guddi laa ko war a wëree pour mën caa jamo yàlla ngir am doon xam ne moom mooy euh, moom mooy euh, euh, yool boobu. man beneen laaj tam moo ko bëgg a laaj ngir xamal ko mooy na ko indi su ko indiwul mu dàq ñu benn mbir moo ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci waxyu ba ko yàlla doon waxyu da doon ñëw di leeral alquran yàlla sonn moo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci àll ko ci lu leer mais lu aayoo dañ ñëw bëgg ñoo ñëw di tari aaya noonu rek dañoo bëgg suñu pare ñëw ci benn par benn moo tax bëgg ñëw benn par jël ñu daal di cay moo njëlbeen waxoon naa ko parce que day indi aaya yu bëree bëri day wax dem doo mën a ñëwaat ci aaya bu nekk nga taxaw ca boo doon bëggoon mu hmm. taxaw ci aaya par aaya tey bu ko waxee mu ne aaya sàngam. non hmm. imam bu ci ko ñoo ngi comprendre de. ñun ñoo ngi comprendre. ñoo ngi comprendre léegi yow say cinq minutes na léegi ma jël ko mu daal di mu daal di dugg. naam soxna ok jërëjëf. waaleykum salaam bisimilah cheikh bi waaw mais mais alaaji Moussa waaw waaw fan nga mës ku tëral ay règle ba pare yow salfaaña règle ya nga tëral ah. doy man moom mu ne balaa ñuy jàll ci benn balaa ñuy jàll ci beneen point point bi ñuy wax na leer mu ne naka lañ mën a xamee ne alxuraan ji mooy bi nga xam ne moom la yàlla wàcceewoon ci yonent bi ma indi ay aaya joxe ay référence mu naan ay maxaarijul xuruf nangam moo moom mii di wax nii ay waxu maxaarijul xuruf alxuraan man li may wax alxuraan ñoom ñii duma ci werante kenn yàlla dogal na ba may nekk ndaw jàng naa ko mokkal naa ko loolu weesu na taba léegi yàlla dogal na yàlla ba moo ci suturaal loolu du wax dañuy wax ci alquran li am solo mooy lépp lu di wax na indi référence bi suma ma ñëwoon sax di ko wax di di wax ay nangam ak nangam ak nangam di yàq baat ya sax wala may tëb ay baat tey joxe référence même su ma tariwul woon sax benn aaya te joxe référence nit ñi dinañ mëna dem vérifier man limay wax fan la nekk rawatina sax la ñuy wax nonu ci njàngin ba ñaka xam la man lamay wax ci alquran mom mënu ca dig dara day ay ñëw taxaw ci njàngin lool du waxtaan bi lool leneen la mom dafa ñëw wax ne te deeng nga sax limu wax mu ne ay yonent bi ñëw xar weer wa xawma nangam nangam wax yoy mi wax yàlla dafa am lo xamna lu leer nañ ñi la loo xam ne moom la waxoon yonent bi te loolu ba tey fi mu taxawoon fa la taxaw jugu fa mhm. nit ñi su fekkee dañoo gëm ne alxuraan ji bokkut ak alxuraan ji yàlla wàccee woon ci tu bi nañu créer fukki saar nañ ko def wala ñu créer benn saar bu mel ni yi nga xam ne moom la yàlla wàccee ci yonent bi wala su fekkee ne dañoo gëm ne alquran ji bokkut ak alquran ji nga xam ne moom la yàlla wàcceewoon ci yonent bi nañ ci génne ay contradiction kon leer na yàlla moom tegtal yii la wax ci alquran ku bëgg a xam ndax alquran ji moom lañ woon ci yonent bi wala déet yàlla moom yii la teg maa nattukaay yii mën nañ koo def ndax la yàlla ci boppam moo wax ci alquran ne ku dem ci surat quarante et un mi sura fussilat aya 41 ak 42 yàlla moo ne inna alladina kafaru bizikri lamma jaahum wa innahu la kitabun aziz mu teg ci ne laa yaatihi lbaatilu min bayni yadihi wala min xalfihi yàlla moo xam ne ne téer bi xala fàttali gi ne kanam du ko jugee ginnaaw nee na neen du ko dikkee kanam du ko dikkee ginnaaw. moom problème am bu ma. kon yàlla li nga xam ne moom la tëral suñ bëggee xam ndax lii mooy li bàyyi koo ca moom wala déet moom tëral na ay nattukaay. ku ko ci weddi rek yow créel fukki saar. soo mënul fukki saar mu ne créel benn. soo mënta créer benn génnee ci ay contradiction yaakaar naa kon lii leer na. te la ma waxoon ne. يونت بي القران موكاي كونفيرمي مي موم دو كونفيرمي القران موم نيونا صاح دغال نكو ليغي سي اي وخام موم دغال ني نكون القران موي دغال يونت بي مي دو يونت موي دغال القران موم بروبليم بوما غيس بير موي دا ملني موم لو بروبليم موي يو لوتا نوغا گمي القران ني كو يونت غي موم موكو واتي با بار ليغي يو منو گم ني ني كو حديثي واخو يونت غي man en grosso modo. lu ma déggee muy wax loolu laa si dégg laa si njàngat. waaw mais loolu mu wax pourtant moom avant muy génn biñ njëkkee wax man ak moom dana ma gin bi ma laajee ne léegi ki ñëw fee na sunna ma ne ko sunna soosa su ma demee ci téere bi nga xam ne gëm naa ne ci yàlla bàyyi ko téere boo xam ne dem naa te gisuma ca ay contradictoire euh, gisuma ci ay contradiction mm-hmm. téere boobu ma dem ca fekk yàlla di dàq beneen wax boo xam ne yenent bi da ko doon wax ci diine budul ay waxam moom parce que dafa ñu bàyyi xel benn affaire moom li mu wax ne ndax yàlla dafa am fenn foo xam ne dafa wane ne non te sax moom moom moom laajam bu njëkk bi xaw ma ndax leer na kon wala leerul parce que dafa mel ni jàll na ci yeneen i point indi na ay point yu bari yoo xam ne bokkul ndax indi na fii wama yantixu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa indi na fii laqad kaana lakum fi rasulillahi iswatun xasana indi na fi yooyu te yooyu benn bu ci ne ay waxu boppam la kon moom lam doon bañ moo ñu dem ci benn point point boobu balaa muy leer ñu jàll feneen moom moo ko def moom beneen wax boo xam ne yonent bi da ko doon wax mu jëm ci diine lu dul li ko yàlla waxloo ci téeréem loolu amul te téere bee ko saxal su fekkee ne moom mën naa ñëw indil ma benn preuve coranique benn preuve coranique boo xam ne yàlla day wane ne yonent bi daan na wax ci mu jëm ci nit ñi lu jugee ci beneen loo xam ne dafa jugee feneen fu dul ci téere bi moom maa ngi koy xaar mu indil ma ko. voilà comme loolay sa ci moom. man mën naa koo indil te man mën naa koo indil ay aaya yoo xam ne day saxal ne yonent bi ci diine daawul wax lu jugee ci beneen téere bu dul ci téere bi yàlla bii mën naa ko ci indil ay aaya waxuma benn ay aaya laa wax. kon yaakaar naa moom war na dégg laaj bi dinañ ko ko laaj. daal di xaar ne ko na ma indil rek benn aaya boo xam ne yàlla da wane ne yonent bi daan na wax lu jëm ci nit ñi leneen lu dul li nga xam ne moo jugee ci téere bi ci wàllu diine. Mm-hmm. benn aaya rek benn aaya képp laaj sax. Mm-hmm. macha allah. daa mel juróom benn rek benn aaya kese laaj sax. léegi nu jël ko mu tontu laaj bi parce que say juróom minute mat. d' accord allah. assalamu alaikum wa rahmatullah man waaw ñoo lay dégg dégg waaw ma dégg waaw ñoo lay dégg bu baax waaw nga wax ma jàll ci beneen point te point bi jeexul ndaxte li tax ma jàll ci beneen point mooy ndax point dama koy laaj may laaj mooy tontu mooy tontu leneen ñun li ko laaj te ñu ngi koy répété ñu koy laaj di ko laajaat ñun li ñu ko laaj mooy alquran bi nga tiim di ko jàng alquran bi nooy xamee ne mooy alquran bi yàlla wàcce ci yonent bi sallallahu alayhi moom mu ñuy indil ka nga xam ne xam ne ni kii mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla di wan ne yonent bii ni maa ko yónni kooku na ki xam ne moom dafa ñëw daal di jox alquran ñun woñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàkkaarloog ñoom ci saxaaba yi ñooñu indil ay nit yu bari di ko toxal di ko ci yonent ñoom gisuñu yonent bi sallallahu alayhi wa génération yu bare bare alquran ba doon wàcc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naka a amee ñun xamee ne lii ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la la jógee ñaareel bi la ma ko wax ilzam la mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit ki saxee na la sunna bi bi dafa wér yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógee nga ne ko loolu wérut mu ne la man dama koo gëm ñoom ñaar ñooy yam rek li ñuy lay toloo te ne moom boo gis ne nit ki su la lii sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom boo gis ne sunna boobu daa wuteeg alquran waaye nekk moom daf jàpp ne mooy lii dafa dëppoog li nga am alquran نقول نو تي دوزيام بوان لي ملي كيو لي غير لاك موني موني نانكي اندي بن ايا بو خامني يننتي بي صلى الله عليه وسلم دا تي يوخ لنين جيل كو فنين دول القران كون لولو مي نيو تي بوان بي مكو لاك موي كون يننتي بي صلى الله عليه وسلم ناخ يالله سبحانه وتعالى القران كاتي نعم لوكو جوك ولا يالله سبحانه وتعالى دانا وحي يننتي بي صلى الله عليه وسلم وي ناخ يننتي بي صلى الله عليه آه. وسلم يالله دون لوكو وحي نعم daa mel ni daa mel ni comprendre daa ne léegi yow ndax mën nga ko jox aya bo xam ne ni que fenn foo xam ne wala wax ko foo xam ne ni que tey yonente gi daa wax leneen loo xam ne bokkul ak alxuraan. waaw maa ngi ñëw maa ngi ci ñëw maa ngi ñëw ci loolu. Ah. mais li muy dama koy damay bëgg indi débat bi ci loo xam ne moom moo ñu jëriñ. maa ngi ñëw naa ci ba mu doyal. Hmm. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. mooy ne wax ñun mooy ne yonent bi solo yàlla da ko doon wax yu moom soo ko xamante ndax moom dafay dàq ne yonent bi solo yàlla ko doon wax ko wax yëpp mooy ne yonent bi solo lu ko yàlla sala alquran léegi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon na wax nit ñi leneen loo xam ne nekku dafa tari mooy yonent bi sallallahu daan na wax nit ñi na ñoom wax leen leneen leneen si yàlla la ko jóge waaye nekkul aay lay tari loolu may laaj ndax bi Moussa ma dégg. waaw ñoo lay dégg. naam soo demee ci sourate Baqara yàlla subhaanahu wa taala mi ngi xamal benn mbir mi ngi xamal ko settantal aay di nga gis ne yàlla subhaanahu wa taala mi ngi xamal ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa daan julli di jublu qibla boo xam ne mooy qibla yahudi baytul maqdis yàlla subhaanahu wa taala xamal ñu ko ba pare naam داري وقت يرتبي صلى الله عليه وسلم ملقي لك من جا جبل قبلة دعا بغبغ ميتام بري علقان سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها من نيت من قام من يسوع هاي يعني تن خال داري سوفة واليهود لأن يروح نيري قبلة بجنة كون يوم لولم تجلي من قبلة لين يكون ما نقولك يا القرآن صلى الله سبحانه وتعالى تبدي قبلة بيرن تبي صلى الله عليه وسلم دور doon jublu balaa yàlla santal la ko wax nag léegi ñun gis nañ qad nara taqalluba wajhaka fi sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha léegi yàlla gis nañ ne ngay yëkkati say loxo ci kaw wala boog say kanam ci kaw mooy di ñaan yàlla subhanahu wa taala ndaxte xibla bi ngeen jublu woon xelu boobu bëggoo ko yàlla subhanahu wa taala daan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam léegi ne yow xibla ba nga bëgg ñun la wax nga jublu ca mooy bayt doy ci kaaba gi léegi ñu koy laaj mu indi ñu te bu mu nekk fii dañu indil aay yoo xam ne waxut liñ koy laaj fii nekkuñu fa ay ay lu jeex mais dañu bëgg ay militaire yi muy jëm ci liñ koy laaj. yàlla subhanahu wa taala di xamal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu xamal wala di wax yonent bi jublul fee baytul maqdis ba yàlla subhanahu wa taala wàcce alquran di ko wax léegi ci nag xibla boo xam ne bëggu ko woon léegi xibla boobu nag mën nga ca mën nga koo bàyyi jub beneen xibla soo demee ci sur tahrim li wan ne yonent bi sonn dana wax nit ñi li ko yàlla di wax yu te nekkul tal qur'an so tahrim ci aya nga tel bi yàlla subhanahu wa taala ne ñu nekk benn soir mu ne ويسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض من فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال alim al-khabir benn sol tamit ne teg yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa mos a ab mbir kenn ñenn cay soxnaam ngunu ñeen moom ñeen loolu soxnatu yàlla son tamit yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñëw di am lu mu tey kenn cay soxnaam soxna soosu daal di dem nettali ko yàlla subhanahu wa taala daal di koy xamal mbir ma mu ne fa lamma nabbat bihi wa azharahu allahu alayhi arrafa baada wa aara an baad yonent bi xamal ko lenn la ko yàlla son taala nettali fan la yàlla subhanahu wa taala nettali fii nii la nga xam ne fan ban aay moo ñëw wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko sa soxna sàngam de wax la nga ko waxoon nettali la ko lu dut na wax ñu li ñuy wax mooy yàlla subhanahu wa taala da doon wax yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax yu lam koy wax yu muy sunnaam mook alquran benn lañ dara wuteeru leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom xel mu musa taxaw ci dàkkaalu ku ngi leen wax ne yonent bi saa yi bu daan wax saa yi bu daan wax naam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saa yi bu daan mu wax ab aaya lay ab aaya lay lay lay tari yàlla subhanahu wa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko di ko wax saxaaba yi ne ko shaawirum fil fil amr saa yi boo nekk jële dee leen del suura aka ak ñoom mu ne nag saa yi boo demee bay jël décision fa tawakkal ala allah yàlla subhanahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam del so del suura ak ñoom lam leen di wax ci diine jëm mu ne nag saa yi boo demee bay jël décision tawakkal ala la nga dënga na nga bàjjal ci yàlla sunu sunu borom su fekkoon ne dafay tari aaya ñëw ne leen def leen bu leen def tari aaya kon du suura ak ñoom day ñëw daal di tari daal di tari daal di tari aaya ba te lii may wax ni amul lenn lu ci génne ci li nga xam ne mooy diine aaya biñ ci tudd ci suuratu doqara la muy jublu mooy fan lañ war a jublu pour julli loolu ci diine la aaya bii nii lam ko xamal dafa farlu la topp ci aaya bi yàlla subhaanahu wa taala daal leen di laaj mu lan lañu laaj woo ñu ñu tuub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay suwaara ak saxaaba yi mooy lu aju ci wàllu wàllu jullit ñi mu lam cay joxe ba yàlla na ko na nga say cinq minutes mat na léegi nañ déglu mu tontu si lii benn benn aaya buy ñëw daal di joxoñ loolu su fekkee ne mbir yi war a cam aaya buy ñëw daal di tudd loolu mu indi ko soo ko mënut indi mu xam ne li muy wax ni tegu wut ci alquran alquran waxu ko dafa wuteeg li nga alquran kon pour tëj رجل السنة من الجب دفتنا كوم وينتي بي صلى الله عليه وسلم يوم لما كو وقف لي تي آي بلي بتي تي قوي بلا لك ما ينتي بي صلى الله عليه وسلم يلي ما ينطق عن الهواء دو واحد مكو تي بلنا طقنا إن هو إلا وحي يوحى ما يلوم وح ينتي بي صلى الله عليه وسلم وح وحي لا تي الله سبحانه وتعالى على جوكي تبرم خلي دبوني دبوني نكون ميسيون نقولوا نيوري دي تاريخ ني القران دي دم دا دان واخ دان دا دان جيف lam daan wax di ko jëf ci yàlla subhanahu la la jóge woon moo tax nit ñi war ko cee topp comme niñ ko war a toppee ci li nga xam ne moom mooy moom mooy moom su fekkee ne doyul ñu indi ko yeneen. ñii di ma woo ñii di ma woo pas votre teur waay may leen ma may leen ma leen nu leeral may leen mu leeral waaw kay def na lépp dix minutes ah non garaawul garaawul garaawul ah déet waaw kon man it bàyyi xam naa du ma étaler sax comme moom li mu étaler xam nga limay wax rek gis nga nit mënu indi say condition ba pare yow sa bopp yow nga jéggi condition yi loolu mënul nekk moom dafa wax dañoo commencé rek mu ne daf may laaj mu laaj ma ma tontu laaj bi la ma ko tontu munu caa indi leen parce que li ma ko wax mooy li wér yenent bi la ko yàlla waxoon ci nit ñi su fekkee ne dafa am lu ñuy sikki sàkka parce que buñ fàtte ne yàlla dafa am ñaari wax yu wax ci yenent bi yonent bi moom ci boppam su sikki sàkkaa ki li yàlla wàccee ci moom yàlla da ko wax loolu moom ci boppam waxuma sax balaa nit ñi di ko gëm moom ci moom déedéet yonent bi moom ci boppam su sikki sàkkaa ci li nga xam ne moom la yàlla wàccee moom yàlla am lu nit ñi suñu amee lu ñuy werante wala lu ñuy sikk lii nga xam ne moom la yàlla wàccee ci yonent bi loolu ci moom la bàyyi ko yàlla tamit dafa am leen ci wax moom aaya yi mu fi wax ni yëpp benn bu ci ne point boppam la wa maa yantiqu anil hawaa gam wax ak la muy wax ci wàllu xibla ba te lim ci mën a doon lu ne su fekkoon ne point yi day doxee ni mu war a doxee lépp lu mu ci mën a doon lu ne suñ ci yegg mu indi ko ci ab tontu bu leer ak la muy wax ci sootu tahrim dafa parce que foofu yàlla wax loolu sax du ci ñëwagum na wax ci lii ba pare dama ne ko indil ma benn point indil ma benn aaya xam nga benn aaya dëgg dëgg bëriwut xam na su fekkee dafa weddi ne su fekkee moom kii nu tur moom sax weddiwu ko su fekkee ne dafa moom daf may laaj man naka laa gëmee lii léegi yàlla wax na indi leen fukki a yàlla wax ne indi leen fukki saar ginnaaw gi mu ne indi leen benn man lam bëgg saxal moom dama ne ko indil ma benn aaya ci biir téereb yàlla laajuma ko ñaari aaya xanaa ci aaya daa falaaj benn xanaa loolu war ta jafe comme moom mën naa tari aaya yu bari na ma indil benn aaya rek boo xam ne yàlla day wax ne yonent bi da daan tari mu jëm ci nit ñi leneen loo xam ne dafa bàyyikoo ci beneen téere bu dul ab téere wala leneen loo xam ne dafa bàyyikoo feneen lu dul ci téere am na ay aaya yu mu tare nii non Moussa Moussa kii kii aaya bu mu junj sax ma yeggale ko wax ma aaya É é, é é é é aaya bu mu junj sax ma yeggale ko bu mu junj junj laa wax de aaya bu mu junj sax ma yeggale ko waxuma bu tari kii aaya buy wane ne yàlla ci boppam dafa waxoon moom daa wax yàlla ci boppam daa wax ne yonent bi daan na tari mu jëm ci nit ñi benn wax boo xam ne bàyyi ko wul ci téere bi loolu rek laa bëgg a wax man kay loolu rek laaj lu yomb la nga tontu ci loolu. Mm-hmm. macha allah nu jëli jiwaat ko nu xaar tontom. waaw soxla wu ma dix minutes waaw. merci kontaan naa si yow. kontaan naa nañ koy gàttal gis nga waaye nañ koy gàttal cinq minutes cinq minutes.

ma la ko dàq jàng yow alxuraan dañu koy jàngee baaxul c'est-à-dire da jàng ñu dàq bi dàq bi indi laaj laaj bu leer ma tont tont bu leer bu ñëwaatee jaxase wat ñun waxuñu ko wax fenn di ko yonent bi sallallahu wax lu wuteeg alxuraan mosuñu ko ko wax waxuñu ko benn yoon ne ko yonent bi sallallahu alayhi day wax di jële feneen pour te yàlla sunu borom di luñ ko wax moo leer moom dafa laaj laaj bu leer leer mooy dane nañ ko a toog dégg na laaj bu baax da koo wax da koo bett da koo bett daa bëgg a daa bëgg a wëri pour mën cee tontu dégg nañ ma ko tontu bu baax muy dàppale wat li ma ko dafa leer dafa ne dafa laaj ne ban aaya dafa ne dafa bëgg ay aaya yoo xam ne benn aaya la wax boo xam ne yonent bi doon wax ak nit ñi ci te du ko tuddee ci alquran Moussa loolu mooy laaj ba du laaj ndax loolu mooy laaj bi Oustaz damay toll loolu mooy laaj bi ko su xamul mu ne mu ne mu nangu rek daal di dellu mooy loolu mooy laaj bi mooy dafa ñoo laaj ko wan yéen day wax fenn ab day wax xadis wala ba yéen day wax am mbir muy wuteeg ko wax loolu ñun a wax ne yéen day wax alxuraan mos ci wax yéen day tubbee feneen ko moom li mu laaj mooy lan mooy li mu gëm mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam danañ wax ak nit ñi lu muy mm-hmm. lépp jaamu yàlla mu digee ak nit ñi danoon tari aaya loolu la moom mm-hmm. mu ne naa ko indil aaya ma tott ko ci mu leer nañ kon fii dama ko cinq minutes dafa may répété la woo ma indil ko aaya boo xam ne la tey leeral aaya bi day leeral aaya day leeral nañ ko taral njeex aaya day leeral ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal na nit ñu julli di jublu baytul maqdis beneen xibla te nekkul ci alquran fenn yàlla soo taal surtout baqara daa bëgg tudd ay turu ay turu comme ay numéro ndax loolu nekkul loolu moo xam alquran nekkul loolu mooy njëriñ da numéro sangam numéro sangam loolu day ndax nit ñi ne ah ci dégg alquran teg li ñu wax dara du ci du ci alquran soo demee ci sotu baqara ay cent quarante yàlla moo ne te yaqulu السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبل التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم yàlla soo taala mu ne ñi nga xam ne ñoo ñoo ci xel yi dina dañoo suufe dañuy faral di wax naan ñi xibla ba ñu nekkoon lu leen ca jëlee يننتي صلى الله عليه وسلم نديجيت اي بي يدون قبلة القبلة منصفك موم سو فكينا صلى الله عليه وسلم دا فاي اي ساي فو ديغلي نيغي دارا اب اي لي اندي دانيو اندي اي بي يننتي بي يالا سبحانه وتعالى قبلة بو نيكول قبلة بي يالا دا دي كونتيني مو كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا مولاك وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول déglul ba baax yaa ngi dégg. yàlla subhaanahu wa taala daal ne xibla ba ngeen nekkoon xibla ba nga xam ne yéen si ngeen jublu ñun yàlla subhaanahu wa taala mu ne joxoon jublu waxuñu ngeen jublu ci woon li tax ñu wax ngeen jublu ci rek mooy lenn kese moo taxoon lenn rek moo taxoon ñu waxoon mooy lan ngir ñu xam kan mooy topp ci yéen yonent bi déglul fii baax yàlla di leeral fii ne yonent yi moo ne wax jublu ci xibla ba aay wàcc yàlla mi ngi naan lan.

mooy as salaa mooy yàlla subhanahu wa taala ñu doon julli di jublu xibla boobu yàlla du tànk seeni julli mu ne nan inna allaha inna allaha bin nas raufur rahim ba egg nag ci aaya cent quarante trois mu ne moom laa tari sànq qad nara taqallub wajhika fi sat la tan tardaha fa walli wajhaka shatra al masjid al haram وني ينتبه صلى الله عليه وسلم ديجي ني يوقب لي بوغو نجبلو نانا بوغو جبلو شو موي جبلو ليغي بس بحرام موي كارش يالا سبحانه وتعالى في دفوابه ني جوليت ني دار نين جبلو تي قبلة بو نيك كوت كابه اموت آية بو نيو وخ ينتبه صلى الله عليه وسلم مو جبلو تي بنين بنين قبلة ودوت آية يي نيو لم يلارل موي نكون يالا وخ ني وخ يو ده ينتبه ne leen ñu jublu baytul maqdis ñu daal cay ñu daal cay ñu daal loolu leer nañ ay bu ko indi soo taxrim ma bàyyi di bàqu gis nga li ñuy wax naan idan jalla alqubaaru sa taarifu farasun taxta ximaaru bis bu wundi bi wuure di nga xam ndax ci fas nga yéeg wala ci mbaam bu lomp nga yéeg li wax ni ay prétention dong la dara xamoo ko Quran ñoo la gën a fa waaye da ñëw ci li ñuy cinq minutes mat na aaral mu daal nan déglu wante waay nan déglu wante nan déglu wante waay ngir yàlla di sàndante ay kii sita nan déglu cinq minutes cinq minutes alxuraan la nii leeral rek jarul sàndante pikk waaw mais xam nga moom moom moom ba tey li mu la waxaat nee na moom moo ma gën a xam alxuraan fuuf loolu moom Euh, wax dëgg yàlla man man man du bàkku ci alquran du ma ndamu ci alquran waaye dafa am loo xam ne moo tax may waxee noona te tax may wax mooy kii kii alquran di delluwaayam ak kum dul delluwaayam mënuñoo bokk yem ci téere bi xëy na moom mën naa toog fii mu toog nii di wax waaye li leer te wóor suñ toogoon di waxtaan ci alquran dana xam ne bokkul loolu nag leneen la te loolu tamit li may wax jamono bu ne noonu laa koy ci vidéo yi am na ci loo xam ne ndimbalul yàlla la du noonu laa koy moom li may man ba tey li may laaj li mu wax ne man loolu laa wax ak li ma wax du benn dama ne ko moom na ma indil benn aaya boo xam ne yàlla dafa wax ne yonent bi da daan wax da daan tari mu jëm ci nit ñi loo xam ne bàyyi wul ci téere bi waxuma lu wuuteeg téere bi wala nangam loo xam ne bàyyi ndax ndax bi am na lenn lum daan wax ci wàllu diit ne mu jëm ci nit ñi loo xam ne bàyyi ko wul ci téere bi loolu rek laa wax su fekkee ne mën na ma indil benn aaya bu ko saxal na ma ko indil ndax moom dafa indi fii wa maa yantiqu anil hawa moom tontu na sànq de nee na amul non tontuwul jegewu ko nee na jegewu ta tontu la ñoom nee na waxunu ni que yonente gi day wax leneen mu ne moom kay nee na waxunu ni que ñoom yonente gi day wax leneen lu bokkul alquran donc loolu amul moom loolu la wax sànq. Ah, ah, kay xam nga wax bi ci njëlbéen gi da ne nit su ñëwee xam moom dafa ñëw ne nit ki su ñëwee ne sunna si gëm naa ne yonent bi moo ko wax. ma ne ko léegi man su ma delloo ci téere bi nga xam ne moom laa gëm damay fekk yàlla dàq loola. ndax yonent bi am na beneen wax boo xam ne wuute naa lii nga xam ne moo nekk ci téere bi. moom de sànq loolu muy benn. léegi li muy wax ci léegi léegi no boobu tontuwu wu ci. parce que benn aaya laa ko laaj bu saxal loolu li leer te wóor mënu koo indi te man mën naa koo la ay aaya yoo xam ne ma joxe ci benn rek ma joxe ci benn rek su demee ci wala ma joxe ci ay aaya ma am lu néew su demee ci suratu kaf yi muy surat dix euh, muy surat dix huit aaya vingt sept xam nga waxoon nañ ne condition yi bokk na ci joxe référence hmm. mu ne loolu amul solo loolu wanewul na nit ki dafa mokkal nangam loolu loolu leneen la hmm. su demee ci surat dix huit aaya vingt sept yàlla dafa wax ne wattlu maa uxiya ilayka min kitaabi rabbika laa mubaddila li kalimaatihi walan tajida min dunihi multaxada yàlla li mu wax yonent bi mu leer mooy taril lu ñu wax yu mu jëm ci yow te jugee ci sa téere borom loolu la yàlla wax loolu yàlla na wax jooju kenn du ko soppi te yonent bi moom du am benn làquwaay bu dul moom yonent bi ci boppam soo demee ci surat vingt sept mi mm. suratu namli nga dem ci aaya quatre vingt onze ak aaya quatre vingt douze moom moo wax moom la ko laaj te tontu ko moom laa indi tontu yi pour mu xam yàlla ci boppam moo wax yonent bi ne ko ki ki yonent bi ci boppam moom moo wax li ko boromam digal strictement mu wax ne mooy nekk surat vingt sept aaya quatre vingt onze quatre vingt douze mu wax ne innama umirtu أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين متكلا وأن أطلو القرآن يننت بي تي بوبام مو واخني لي رك لاكو ديغال مو ني بروم لي نكو ديغال موي موي مو جامو مانام بروم دك بيغا خامي دنجكو وورمال موم ميغا te moom it mu ne dañu koo digal mu bokk ci ñi nga xam ne dañoo jébbalu muy muslim mu teg ci wa an wal quraan ak di tari al quraan mm-hmm. kon yonent bi wax na moom liñ ko sant yàlla lim ko sant yàlla lim ko digal kese mooy maanaam jaamu yàlla doon ab muslim di tari al quraan mm-hmm. léegi nag su ma ñëwee ci laaj yi nga xam ne moom lay laaj moom ginnaaw bi nga xamee ne moom tontuwul sama laaj la laaj yagul dara ginnaaw koor gi rek benn nit yónnee na ma ñett moom sax li muy wax noonu du benn rek am na ñetti passage ci alquran yoo xam ne yàlla da ciy wax loo xam ne maanaam la ko jiitu ñëwul ci téere bi léegi bi ma ko waxee dama ne ko nit ñi dafa am lu ñu xamul te loolu yàlla ma ma nit ñi dafa am lu ñu xamul te loolu yonent bi moom xamoon ko ak ña nga xam ne moom la àndaloon te loo xam ne yàlla ci boppam moo ko saxal ci biir téere bi li nga xam ne ñoom ñii moom lañ xamul mooy islam léegi sax xëy na ñu bëri léegi ñoo ngi koy wax mais bu njëkk ba en 2017 ñoom li daan wax mooy ay diine yu jugee asamaan maanaam ay diine yu jugee asamaan amut benn diine moo jugee asamaan diine jooju ci yonent bi continuateur la diine jooju ci yonent bi la mate soo demee ci alquran yàlla dafa xamle ne téere bi nga xam ne moom la wàccee ci yonent bi dafa ñëw di dëggal téere yi nga xam ne moo ko jiitu yàlla dafa wax ne ci maa ko dem ci sóotu fatir mi suura 35 ay 31 yàlla dafa wax yonent bi ne ko wallazi awxayna ilayka min alkitabi huwa alxaq musaddiqan lima bayna yadayhi inna allaha bi ibaadihi la xabirun basir daf aaya boobu sax doyoon na sëkk ñu xam ne lépp loo xam ne nit da koy wax te mu génn téere bi du lu wér yàlla moo wax yonent bi ne ko li ñu wax yu mu jëm ci yow jugee ci téere bi mooy dëgg kon lu génn téere bi moom jarut soon du dëgg li ñu wax yu mu jëm ci yow jugee ci téere bi mooy dëgg gi nga xam ne day dëggal la ko jiitu woon te mu ne yàlla kat ci ay jaamam kuy gis la ko dëñ kumpa la bi nag continuateur islam la yàlla dafa dogal ña ko jiitu xibla boobu yàlla di ko wax ci alxuraan ña ko jiitu xibla boobu lañ doon jublu Hmm. yàlla nag bi mu ñëwee ci alquran yàlla ci la ko soppil loola ca foofa hmm. parce que téere bi dafa ñëw di dëggal la ko jiitu continuation la nga xam nga xam islam continuité la te loolu nekkul ci boobu rek mën naa ko wax beneen ba tey su demee ci wàllu koor hmm. man su demee ci aaya cent quatre vingt sept yàlla mu ngi fay waxaat loo xam ne soo demee ci téere bi comme bi na muy wax ne uxilla te laylata yi الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم متكنا فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم مدوغ نيون وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر so demee ci aaya boobu aaya boobu la muy wax la yàlla di daganal ca fooba ci guddi ga muy góor ñi guddik woor nga xam ne góor ñi guddik weeru koor ñuy jaxasoog seeni soxna nga xam ne loolu yàlla ci téere bi la ko daganalee léegi fan la ko araamalee woon est que dañ koy laaj parce que dafa araamoon ca jiitu ci téere ya njëkk a wàcc dafa araamoon ci guddiku weeru koor ñuy jaxasoog seeni soxna yàlla nag ci téere bi nga xam ne ci la diine ji mate téere bi mu ñëw indi loo xam ne day daganal la ñu araamaloon ca lu jiitu mm-hmm. comme ni nga xamee ne xibla bi ña jiitu nañ amoon xibla boo xam ne ci seeni téere moom lañ leen digaloon yàlla bi mu ñëwee ci téere bi mu wax leen na leen maanaam léegi mu wax yonent bi nga xam ne nga xam ne la fi nekkoon mooy jublu ca xibla bële mu ñëw soppil ko mu ñëw soppil ko xibla booba lii loolu lay jàng da nga dégg. waaleykum salaam ñoo ngi lay dégg bu baax imam. Oh, xam nga lii leer na c'est-à-dire Sakho li muy def mooy dafay jël dafay laajub laaj ñu tontu ko ci laaj boobu mu xam ne laaj yu tontu na ko moom mu bëgg foog mu indi rek moom li mu jubluwaay mooy mu indi ay aaya ba nit ñi jàpp te li muy wax aaya duñ ko tont tontu bu leer nañ li mu laaj. mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax nit ñi loo xam ne nekk ne alquran kon moom mi ngi waxaat ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da daan digal nit ñi ñu julli di jublu baytul maqdis waaye nekk ci alquran loolu wax na ko kon loolu nekk alquran nee na ci yeneen téere la ko jëlee loolu fan la ci alquran fan la nekk ci alquran ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu leen di wax jublu leen baytul maqdis yeneen téere la ko jëlee xam nga loolu mooy bañ a jël dëgg dëgg leer sa kanam nga ne da koy jël di théorie ñun liñ ko wax mooy yonent bi sax yàlla ko doon wax waxyu muy digal nit ñi ñuy julli ñu jublu baytul maqdis te fekk ñu kon loolu dafay dëggal lañ ñu ko doon wax mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf koo jox ñaari waxyu alquran ak li nga xam ne mooy ñun li ñuy tuddee sunna mais ba tey liñ ko di leer na nañ yàlla subhanahu wa taala mi nga jox alquran lu leer nañ ne yonent doon jàng ci këram moom la ci laa wax doon jàng ci këram leneen loo xam ne Euh, waaw moo wuteeg alquran de waaye beneen wax yi bëgguñ sa def li muy def mais nañ def li muy def rek parce que dañ bëgg euh, di indi ay ay chiffres ay nombre aay ah, bu ñu fi tudd waaye da ñu ku la fekk la loolu euh, amul loolu bëgg soo dem surat ahzab ci aaya 34 yàlla soo demee yonent bi solo mi ngi wax di ko digal solo yonent bi solo mu ne wazkur na ñu lay waxal. soxnaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa yutla fi buyutikunna la ñuy jàng ci seen ci seen kër la ñuy jàng seen kër mooy lan min ayatillah ci aaya yàlla mu ne wal xikma mu wax yonent bi sallallahu alayhi wa moo wax yàlla subhanahu wa mooy wax soxna yonent bi yàlla mooy soxna yonent sallallahu alayhi ah na ngeen jàng la nga xam ne moom la tudd la la ñuy jàng seeni kër ci aaya yàlla mu ne xikma moom li mu dëggal li yonent li ki nga xam ne mooy ibrahima alayhi salaam ba muy ñaan yàlla subhanahu wa taala pour yàlla subhanahu wa taala yónni ab yonent pour yàlla subhanahu wa taala yónni ab yonent ci ci arab yi yónni ab yonent boo xam ne ca màkka la la mu waxoon mooy yonent boo xam ne yatlu yatlu alayhim ayat mooy wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal xikma di leen jàngal lan alkitab wal xikma loolu dañ ko ci dolli donte lañ ko tontu laata nañ moom wax na ko ci biir xam kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ñëw di digal nit ñi ñuy def mu leen di digal ñuy julli di jublu beneen xibla te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jëliwu ko ci li nga xam ne moom mooy moom mooy alquran aaya bi muy tari waaye yeneen da koo bàyyi ndax bi amul fenn alquran waxee ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay topp sharia ña jiitu woon yàlla sax contraire la wax yàlla dana ku nekk ca ñoom da leen joxal li nga xam mooy sharia ak li nga xam mooy minhaj waaye bëgguñu ñu ko mooy dañoo bëgg yem ci benn aaya bi ñu ci ko del aaya bi nag surat tahrim ya foofu dafa leer te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla da koo xamal ay mbir yoo xam ne daf ko ko xamal te tariw ko ci al nekk ko ci alquran la ko jëlee ndax ci ahlu kitab la ko jëlee jëlee ko ci ahlu kitab yàlla moo ko xamal mu ñëw xamal ko soxna mi xamal ko ko xamal ko ñen ci soxna mi xamal leen ni li ni wax nga ko yow te war na ngeen a lol loolu loolu la bok lol ci diine la bok te jilu ko alquran wahyu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla da koy wax boobu tay ñëwu ci yàlla subhanahu taala dañ koy wax say bo dewe bay décidé fa tawakkal ala allah fa la koy jëlee ci ahlu kitab dere dana ko fa tawakkal ala allah kon lolou muy wax non di jaxate nan ci ahlu kitab lu ko lolou ay waxi boppam la lolou alquran loolu ab waxinam la loolu ngir bañ a topp alquran bi la bëgg a nekk ci daal di continuer ci yéram googu moo tam bëgg a weddi loo xam ne benn nit werantu ci borom xam-xam yi benn nit werantu ci borom xel yàlla sonde waxal mooy lan mooy ne yàlla subhaanahu wa taala dafa jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ñaari wax aaya bi mu tudd fan la yàlla subhaanahu wa taala waxee ne yonent bi sallam bu jàngale neen su ma nee la Moussa jàngal ma alquran loolu dañ ciy déggee ne jàngal leen alquran fan la yàlla waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal bu jàngalee alquran jàngal alquran mooy bu jàngalee alquran fan la ko waxee naam ka aay yi muy tudd nekkut lu jege li muy wax moom watlu ma uxiya ilayka min kitaabi rabbik loolu fan la ci yàlla waxee bu jàngale nag yàlla dana ko jàngal li nga xam ne moom la ñu wàcc ci sa téere bi loolu ana ana ci ana ana foofu noonu bul jàngalee alquran fan la ko yàlla waxee moom mooy jël alquran bi di ko firee ab dégginam ba pare ne déggin boobu mooy alquran ba pare bëgg a taxaw palaasu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne doo leen dellu ci bi waaye dañ dellu ci mbàkke ci mbàkke saako yàlla waxut yonente bi fenn ci alquran amul fenn amul benn aaya boo mën a indi benn laaya ñet benn wala dakketu aaya bu yàlla waxee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bul jàng leneen bul wax leneen loo xam ne tëbbeewoo ko ci alquran loolu yàlla du ko wax ne yàlla ay waxam du wute yàlla subhanahu taala moo wax yonent bi salla moo ñu xamal ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko yónni ngir lan mooy tey bëgguma indi aaya yi nga xam ne sax da koo xam ba pare gëstu ba bëgg ci indi ay ay ay lëntëm yi muy indi nii moo may may may indi ko aaya yu bi sama tey la ko tey la ko dégg tey la koy doog a dégg ñu koy tegtaloo waaye mën nañ ko indi benn aaya yàlla subhanahu wa taala moo ne bi sallallahu alayhi wasallam wanzalna ilayka li tubayida linnaasi ma nuzila ilayhim yàlla moo ne dafa yónni ci yónent bi sallallahu alayhi wa sallam zikr lan moo tax mu yónni mu tàmm bi yónni ci ngir yónent bi leeral nit ñi li ñu wàcc ci ñoom bayaan bi fan la ko yàlla soxla delloo ci yónent bi sallallahu alayhi wa sallam yónent bi naka lay leeralee alquran mooy la yàlla subhaanahu wa taala daal di jël boyal yërëm daal la moo dama tuddaloon ko te ci point bi la nekk ne yonent bi sallam yàlla ne wala qad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mooy yonent bi day yàlla day digle mu jëf ñu xool nettal ñu ñëw ci ñun ñu ne yonent bi li yàlla jëfee nii la ko jëfee yonent bi yàlla son danan inna anzalnahu fi laylatil qadr qadr fa qadr ñu daan ne ko yonent bi guddi goo fu ne mu ne ñu salam la ñu nettali ko mu ñëw ci ñun loolu mooy li dëpp alquran loolu la ñu alquran wax wax lu wuteeg loolu da ngaa weddi nga dem salaat te su mu ñëwaatee dinaa ko indil aay yu bare bare bare yu dul jeex tuddal ko ay référence léegi fekkee noonu la ay aay rek tudd ay référence pour wan ko ne ko lii ngay wax nii dafa wuuteeg li nga xam ne moom moom la alquran mais li ma doon bëgg mooy nay tontu ci ñu koy laaj di dellu soit ci li ñuy wax mais pas a chaque fois di wut benn échappatoire pour wax leneen pour mën a indi ay aaya ñooy ma ngay tuddi ma ngay tuddi aaya fekk na la muy wax wuute naag ñun li ñuy wax li ñu laajoon tontu lañ ko ko mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fees na ci alquran te moom nangu na loolu ay mbir yoo xam ne daal nañ ko jëfee yàlla subhanahu te amut ci alquran fu yàlla joxoñee loolu su ko amee nu ko indi su ko amut kon mu xam ne sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lañ xamee loolu ma koy laajat laaj bi ma ko laajoon ba tey ci point bi sax mooy ci alquran fan la ñuy fekk yonent bi sallallahu alquran daal di ñuy leeral ne ban gis wala ban gudd guddi mooy guddi laylatul qadr jàpp na instant am na temps pour set ko nañu indi lim si bëgg a indi am na am na yeneen laaj war a ñëw loolu si point bi la ndax dañuy bëgg a firndeel ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na jëf di wax loo xam ne duñ ko fekk ci li nga xam ne mooy mooy mooy alquran même si léegi nag moom mi ngi bëgg a nangu ne kon doon na jëlee feneen ci ahlu kitab yàlla yéen tamit dellu ci ahlu kitab te yal di ko wax yu allahul mustaan dafa dal naam bala may dugal Mbacke Sakho ma may yenn gaa yi nek si suuf yéen naafeq yi comme ni ma waxee no deglu, jël kay ngeen dem ngeen dadi gustul senbok bop. bopp sen bop bopp tamit waaw lu ñuy wax ndax Bulan ngi fa bu wala, ma si toftantal bu leen ma si dugal bu mo ma kii voilà man joxewu ma aaya man voilà kuma si dugal sa bop ngay wa ilaa da ngaa amul lu ngay wax maa ngi leen di jox ku si nekk seen taas ñoo ngi wax nicement respectueusement affaire bi tegu na wax baa ngi fi nu si des nag dese neen seen xel bàyyi leen nit ñi nu yu seen xel man génnee leen ma si carrément maa ngi gis yenn commentaire yi bëgg ma seede woon ma nekki man lu ma mel ak lu ma gis ça n'a rien à voir lay loolu du lay de voilà man moom si boo demee ma si génne voilà naa fekk ngeen lool seytaane bi yenn seytaane yi xàmmee naa waaw cheikh bi waaw kay asalaamaaleykum waaleykum salaam bisimilah yaa dégg macha allah El Hadj waaw am koy waaw kay El eh, waaw allo waaw ñoo lay déglu bu baax waaw kay moom maa ngi dégg <laughs> sa waa ji mu ne moom tontu na ma man tontu ma ba tey moom li ma ko laajoon tontuwu ko man maa ko tontu ba pare jàll moom ci ay laajam moom maa ngi dégg mu ne moom mën na indi dina indi ay aay yoo xam ne mosuñu mosul dégg ñu ko am na ku ma gis léegi ci live bi euh, koo xam ne mu ngi ci live bi foofu am na émission yi ñuy def yu tudd setantal mm-hmm. moom moo koy animé gis naa ko ci live bi sànq ci ginnaaw mm-hmm. def nañ émission boo xam ne aaya yi mu tudd moom di ko wutal layee moom ñoom ñoom sax du moom mii waaye ñoom ñi nekk ci seen ñi nekk ci réew mi ñi nekk bitim réew ci waa ahlu sunna wal jamaa aaya yi ñuy layee ñoom ñun tontu nañ ci waxuma moom mii rek waaye même ña nekk gëm la mu gëm aaya du ma sa aaya doggitu aaya maa ngi géeg sànq noonu mu bërëxalee xama wa anzalnaa ilayka zikra noonu mu ko bërëxalee noonu hmm. nga xam ne waxu ko mu leer hmm. aaya ya ñuy layee ñoom aaya yëpp dañ yooyu dañ koy ñëw di ci leeral kon li muy wax loolu taxawul hmm. la muy wax ne ci wàllu xibla boobu xam nga moom day moom dafa waxoon ne dañuy taxaw ci benn point ba mu leer ñu doog a jàll ci beneen te moom mi waxoon loolu moom mooy bapwe loolu on reste constant rek la nga xam ne moo nekkoon ci xibla bu njëkk bi moom dafa jàpp ne yonent bi moo wax nit ñi ne leen dañuy jublu baytul maqdis loolu wérul de mm-hmm. moom dafa jàpp ne bi moo digle woon maanaam ñuy moom moo jiite moom moo jublu foofu loolu wérul de mm-hmm. loolu yonent bi digle wu mm-hmm. ndax yonent bi dafa am lu ñoom loo xam ne. dañ koo xamut ñoom dañoo jàpp ne islam loolu lañ gëmoon bu njëkk ba xëy na léegi mu ngi changé kenn ni ma ko waxee sànq dañoo gëmoon ne ñoom islam ci yonent bi la tàmbalee Isa dafa amoon diineem Muusa amoon diineem mhm. te fekk ne loolu kon noonu moo ko waxee ci xibla bi nga xam ne xibla boobu du yonent bi moo ko digle yonent bi du moom mooy digle xibla bi ñuy jublu loolu yàllaa koy digle loolu yàlla moo koy digle yàlla moo digle woon lii ci lu jiitu mu ñëw ba ci yonent bi soppi loola comme ni nga xamee ne ci koor lu jiitu ah ma ne dégg nga lu mu wax si laylatu xadri bi waaw non xaaral ma ñëw loolu maa ngi ciy ñëw hmm. léegi léegi yàlla moomu nga xam ne moom moo wax loolu ci euh, ci mu tudduwaay ci xibla bi yàlla moom it noonu la waxee ci koor nga xam ne lu jiitu ndax yàlla mu wax ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun ci suratu baqara surat 2 aya 183 yàlla mu ne ee ñi gëm dogal nañ ci yéen koor gi kem nu ñu ko dogalee woon ci ñu jiitu mu ne kon mën na am di ngeen bàyyi xel na nga xamee nag ñu jiitu nañ leen digalee woon koor da caa bokkoon guddi gi duñu séq ak seeni soxna ci alquran nag yàlla ñëw abrogé loolu loolu noonu la demee la muy wax ci sóotu taxrim nee na dina indi yeneen aaya yoo xam ne ñun mosuñ koo dégg ñoom ñu koy laye <laughs> xam naa moom maanaam la muy wax ci sootu taxrim yàlla foofu waxul wax yu yàlla koo xam ne la da xibaar allo. waaw ñooñu la léegi. loolu ñoom ñoom ñoo koy def ñoom ñooy dem ci ci seen téere yi di indi ay wax yoo xam ne ci biir néegu yonent bi fa la doon xewe di ko nettali ñu ne te ñee nañ ñee nañ ci biir néegu yonent bi la doon xewe fii soo ñëwee fii lii aaya bii muy wax ñun suñ bopp indi nañ ko si suñuy waxtaan aaya bi yàlla lim ciy wax mu doon waaw bàyyi ma yeggali wala. waaw waaw mat na soo yeggee rek comme ça mu dugg moom. waaw kay d' accord parce que léegi yonent bi ci boppam dafa am loo xam ne dafa doxoon diggante moom ak ay soxnaam yàlla xibaar ko yonent bi yàlla da wax da ko koo xibaar bi mu ko waxee da وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأزهره الله عليه عرف بعده وأعرض عن بعض من لن فلما نبأها به قالت من أنبأك من هذا قال نبأني العليم الخبير لول yàlla da ko koo xibaar loolu du wax yu yàlla lim namm mu ñëw ci li nga xam ne moom la namm mu ñëw ci téere bi loolu la ñu wax waaye leneen li moom vie privée am la waxuñu ko lan moo xewoon lan la soxna ya defone lolou yàlla waxu ñuko parce que lolou concerné wuñu dundum la mom moom. jeuf léegi nu déglu mom lu musi yok wa waaw bala mi wax ci yenen yi mi wax ay ay laytu khadre ak yenen yi mi wax loolu. <laughs> waaw sax moom moo lay reetaan ndax te léegi xam na ne jàpp na ne xam na ne daanike wasaana parce que li muy naan dañuy gën a rafet wax dégg na ko baax mi ngi faral di wax man man moo tax wax naa depuis le début man man gi bëgguma maanaam dëgg du moom wax nii na ay ñu ne man fit boobu muy wax xaw ma ko sax mosuma ko dugg xaw ma sax ji li muy wax mooy mooy ay yi ñu ko tuddee nii dafa tontu li li mu laaj leer nañ léegi nag mi ngi dem yeneen biir mi ngi wax yeneen réer yu gën a réer yu wut yu wuteeg alquran mooy li bi jiitu mooy mi ngi bëgg a gëmloo nit ñi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëwoon di topp ahlu kitab mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëfe topp mooy yéen digal leen ko su yonent bi su digalul yonent dafa ñëw màkka màkka ñoom nekkuñu lay chrétien nekkuñu lay juif يالله سبحانه مدام مدينة مدينة تكنا في جيف واي نكو أكيد نكو يوم أكريكان في جيف من يوم دجال لين جولي نجيب له نجيب له بيت المقدس من يوم نتي بيت دجال لين كده جو تقي يبغى تيجي شيخ فلا تتقي الله برا إيه، إيه، سال يالله جيتير يالله جيتير فانتي أنا في القرآن تقول لنا إن ينجم صلى الله عليه وسلم يلا من حتى كآية بوم سكوت دقن آية مو آية آية بتجيب بقى بس كنتي نون تقدر تدبر القرآن مو تقدر تدبر القرآن بس في دقوة واحد mais yàlla ci boppam aay ba muy jeex ba mu tàmbalee si yaqulu sooy naas fa mu ko jeexalee mooy mooy lan ne ko bis boo jëloon jox alal ju dul jeex ahlul kitaab duñu topp sa xibla mu ne ahlul kitaab ñeen ci boppam sax bokku ñun xibla yéen ñu jublu yàlla subhanahu wa taala moo wax ne ahlul kitaab ju boppam ñoom seen biir wa ma baaduhum bi taabin qiblata baad mu ne ñoom kenn ci ñoom doo ñoom duñu topp xibla ñu ci def afala tattaqillah yàlla soo taala ci aaya bi moo xamal ne ahlul kitaab ñoom ci boppam bokku ñun xibla yu doon jublu mu ne inti sal mu ne bis boo joxoon aaya leen neex duñ sa topp sa xibla ñoo ne kenn ci ñoom kon naka la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw di topp ahlul kitaab te dafa wute yàlla soo taala leeral ci aaya bi daal ne yonent bi sax dafa wàccee nit ñi ne leen ne leen jublu baytul maqdis mujj gi mu leen jublu leen masjidul haram lu tax mu def ko mu ne ngir xam kan ci yéen mooy topp yonent bi Mbacke Sakho jël loolu sànni fële di ñu wax loo xam ne maa anzal allahu bi sultaan amul benn aay bu ko fekk amul benn aay bu mu ñu mën a indil buy wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon déport nit doon topp ahlu kitab kan la koy fekk du ko mën a indi ay théorie boppam la indi ba pare ni wa alquran la li mooy tabdil alquran yàlla soo demee ci suratul maida mi ngi wax ne lii am Mbacke Sakho wax dara amu ci donte liñ liñ jot a leeral leer waaye daf koo gën a leeral yàlla yaram وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه يال دافا وات تي بو خا دافا نيو دكل لي تي تي تي دافا نيو دال لي تي لام دكت نيو موي لي انجي توحيد مولاي فاحكم بينهم yàlla sax na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam taxkum baynahum bi ma anzala allah àtte ci ñoom la yàlla wàcc ci ci alquran le moom dafa am benn wëxam boo ñoom alquran dette ci ñoom leneen bi lépp ci yàlla subhanahu wa taala lii ñu koy jëf lii ñu koy wax ديني كوي نيني ديكو ديك نيو كاي افوبي ليپ ديكو سي الله سون بروم واي مونيكو نك ولا تتبع اهواءهم اما جاءك من الحق في لا اي نيو مون لي كل جعلنا منكم شرعه ومن حاجه يالا دا خامل ني يالا يننت بي لم كيدفع يلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لم يوحي سورة البقرة لولو أي وحي بطل يلا fenn ci sootu baqara ne yàlla subhanahu wa taala ba wax saxaaba yi nga xam ne ñi nga xam ne dañ daan ndax seen bokk ci guddi wala bokk dégg saa doon nañu jaxase seeni seeni sono bam nan leen fal ana bashiruhunna wa kulu washrabu hatta yatabayna lakum ila akhir aya teg foofu amut fenn fenn ku yàlla waxee loo ahlu kitab ne ko doon def moom moo ko waa waxi boppam la du aaya du wax xeet nu waxi mbàkki saaxalu nekkul ci benn aaya yàlla sunu daal fii daf ñoo xamal ne kon yenent bi sallallahu sallam la ko yàlla jox daa nekk sharia ak minhaj bu wuteeg minhaj ahlul ahlul kitab yaa cheikh ak doo ragal yàlla sunu borom li ko indi sóotu tahrim xool ni ko bëgg a tabjile sóotu tahrim yàlla sunu taala waxi yenent fekkoon ne waxi yàlla waxi néegam la yenent waxi néegam la lu ko yàlla fekk tal quran ay mi xalaat li muy wax yàlla nee na nee na la yàlla wax foofu yenent bi ñun ko waju idda moy lan yàlla subhanahu wa dafa yeneen bi amna dafa am lu mu xamal yeneen bi te wàcc ci alquran ñu xamal ko kon yeneen bi lam da yàlla ci mom nekul alquran kase maanaam xibaar la mooy xibaar la mooy wax yo xibaar la lako yàlla xibaar lo moy wax yi yàlla da ko ko xamal te nekul ci alquran yàlla wax ko ci alquran nga ne si néeg la ba pare yàlla tek ci nak dal li di dënku ne leen le inda tuba ila allah bis boo leen tuubee jëm ci yàlla subhanahu wa taala faqad saqat qulubukum te yàlla subhanahu wa taala dañuy xol moom yéwénal la nga ne ma loolu yëfi lan la yëfi néeg la kon yëfi néeg lu ko yàlla di nettali kan moo la wax man dama foofu na lam fa yittel mooy kan la wala du kenn lam fa yittel mooy ne yàlla foofu dafa saxal lu leer nañ ne bu amul benn sikki sàkka ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal wàcce na ci moom xamal ko ay biir yoo xam ne duñ ko jàngee ci alquran te loolu yëpp jóge ci yàlla suñu borom yàlla ba tey ci yeneen i aaya mu ñëwaat xamal nañu ne yeneen bi salla loon jàng ci ay néegam di ko jàng ci ay këram mooy lan ñaari nit ñi mbir yi la alkitab wal xikma mooy alquran ak sunna te ñaari mbir yi du duñu wute te duñu tàqalikoo ba keroog ñu tase yàlla sunu yàlla sunu borom kon li lay mooy Mbacke Sakho gis naa ne ñetti iljo defal na ko dafay répété waat la même chose di bëgg a waxaat leneen an pour ñu ma mel ni mi ngi wax ay aaya fekk ñun liñ koy indil ton tu tontu ca indiw ci li nga xam ne moom mooy moom mooy leeral kon booy bi jàpp na mën nañ cee jàll doyloo ci li ci nit ñi dégg ñu den deneen ci beneen point mooy la ma tontu ci alquran ci laylatul qadr ci fan la ñuy fekk ci alquran ci bis ki nga xam ne mooy guddi laylatul qadr daanoo aman yeneen i aaya ak yeneen la yoon dugg na koo laaj balaa ñu jóge fii pour ñëpp xam ne Mbàkke Saaxo alquran tariw ko jàngu ko te la muy wax alquran jigal ko wax nekk fii di reetaan nag loolu ya cheikh la yusmin wala yuxni min min min jo réew gàcce la rek ak réew ko am lu muy lu muy wax ñëpp mën nañ ko waaye tontu ci leen lay wax di bañ di répété sa yi li nga laaj tontu naa ci mu leer nañ léegi nag sagam tontu ma lañ doy loolu ñu ci wax ñu jàll ci beneen point léegi maa ngi lay laaj aaya bi na ah, ah, suur suura bi إن أنزلنا في ليلة القدر وما ذلك من ليلة القدر لا تقعد خير مرشد فنزل الملك وفيها بإذن رد من كل أمسان من فقطار مبعد الفجر فل سبحانه وتعالى وهيك القرآن كتل بوغو فل نكوي فك ولا بوغو فل نكوي فك الكتاب أجل فلق يا الله فل نكوي فك لنا هو نكي لنا هم يموما ينق لما نسا قاتب أجل من لكن يو لنا هو خني تيوال النسك آية ما الناسخ والمنسوخ داوود تقول القرآن الجنجلي wutik li borom xel yi dari xam mais ñu ngi ñëwaat ci audio yi ñëw su ma ko fàttali Moussa Tall nga fàttali ma ko ndax li muy wax ay lënt la yoo xam ne nekk ko ci alquran xam xelu boppam la lay indi loolu tax ci jël jëlbeen do bëggulu nu dugg ñun ci ci làkku ci alquran daa ni muy fii wute na li arab yi li alquran di di firi mais incha allah dinañ ci ok asalaamaaleykum macha allah macha allah El Hadj Moussa waaw maa ngi lay nuyu bu baax sant yàlla euh, moom nee na li muy wax leer na nañ su leerul lam tontu nañ ko doyloo te jàll loolu la mujj wax nee na li muy tontu moom leer na nañ su leerul nañ ko doyloo te jàll loolu mooy kon lam wax nañ ko yem hmm. dafa am li muy wax ci wàllu xibla bi ak la li muy wax ci wàllu xibla bi ak la muy wax ci wàllu koor gi la yàlla wax ne fal aana yàlla fal laana bashiruhunna mu ne yàlla wane yàlla waxul ne comme yonent bi ci boppam da doon topp waa ahlul kitaab xam nga loolu mooy jafe-jafe est ce que man dama ne yonent bi da daan topp waa ahlul kitaab yàlla moo wàccee alquran yàlla moo wàccee téere yu ko jiitu yonent bi toppul waa ahlul kitaab lam fi fekkoon ci téere yu ko jiitu te suñ boroom soppiwu ko loolu soppeekuwut lam fi fekkoon ña jiitu daan ko def te suñ boroom soppiwu ko ci alquran loolu soppeekuwut aaye boobu mu indi ci sootu ma Maa'ida am na sax leneen li muy wax mu ne man damay tari aaya yi maanaam pour léegi bu ba ko dégg jàpp na alquran laa yor te fekk ne li may wax du alquran waaw léegi li may wax alquran la wala du alquran mais loolu jafewul man maa ngi joxe ay référence référence yi may joxe ni ñaa ngi koy dégg kenn ku ci ne ne kenn ku ci ne su waxtaan yu matee na dem vérifier boppam référence yi loolu tey lu yomb la a nga booba léegi yaa ngi wax xaaral ma wan ñu nekk si live bi man saa yoo waxee saar maa ngi ko tàpp saar yëpp a ngi sama kanam léegi sa suñu bëggee loolu moo am solo léegi yow soo paree yow soo paree soo ko joxee ma teg ko audio nit ñi dégg wala parce que man man naa kaa def en audio référence bu ñu fi jox suñu génnee référence jox ma suraat bi jox ma saar bi ma play ko audio nit ñi dégg ñu déggandoo ko nu ñëpp loolu jarul xuloo parce que ñu am nañ fu ñu ko mën a gëstu na wax gi leer ak jeex na léegi yow moom su paree référence su la neexee nga bind ko def ci ojo boole ko ca hmm. léegi kenn ku ci ne mu dem vérifier boppam ndax ñu li ñuy wax mm-hmm. looloo nekk ci téere ba wala newu ca loolu kese la loolu jafewul ba muy wax noonu mm-hmm. jafewul mm-hmm. li maanaam li wax noonu yonent bi ci boppam téere yu njëkk yi téere yu njëkk yi dafa war ci ñun ñëpp ñu gëm kenn mu waree ci ñun ñu gëm yonent yëpp dafa war ci ñun ñu gëm téere yëpp dafa war ci ñu gëm yonent yëpp aaya boobu mu indi ci sóotu Maa'ida mais aaya cinquante huit hmm. loolu yàlla di wax téere bi alquran bi mais bi téere bi yàlla dafa ñëw bi nga xam ne moom la yàlla wàccee ci yonent bi hmm. dafa ñëw di dëggal la ko jiitu ba noppi nag yàlla doog a wax wa muhayminan alayhi dafa dëggal li ko jiitu ba pare doog a am nag prédominance ca ñoom sànq maa ngi dégg mu ne aay yi wax xam naa maa ngi dem di ko gëstu waaye man soxla ma gëstu aaya <laughs> soxla ma gëstu aaya doo wax dëgg yàlla soxla ma gëstu aaya moom <laughs> loolu leneen la waaye wax boobu balaa yàlla di wax ne téere bii dafa am prédominance ci téere yooyu da koo dëggal ba noppi lépp loo xam ne téere bi ñëw na ko dëggal ko cala jiitu su ko yàlla soppiwut ci téere bi loolu dara du ko soppi xibla boobu noonu la demee la jiitu dafa am ñu daan jublu baytul maqdis ñooñu nga xam ne dañ fa daan léegi nag ñooñu nga xam ne ñoom dañ fanaan daan jublu yonent bi bi mu ñëwee loolu suñ borom soppiwu ko tëbul suñ borom tëbul soppi loola suñ borom moom ko soppee ci aaya yooyu mu doon wax mu nekk ci sootu baqara da commencé ay aaya cent quarante deux cent quarante trois cent quarante quatre kenn ku ci ne après mën na dem xooyali ko boppam wax jooju foofu la nekkee la muy wax fële maanaam ci ay ci ay soxnaam yaa suuf yàlla waxul da koo wax ju de yàlla dafa wax da koo xibaar baat boobu moom la doon utiliser ci yonentu yàlla yuusuf comme ni nga xamee ne nit ki da ngay gént suñ borom xamal la dara loolu xibaar la tudd parce que moom balaa muy wax naan yàlla da leen a dànkaafu waaye yàlla lu mu leen dànkaafu dànkaafu la ñu def tudd ko xamal na ko yonent bi te nekkul lu yonent bi war a wax nit moom la diggante moom ak ay soxnaam wax bi dëgg-dëgg noonu la demee yàlla ñoom ñoo respecté ñoom seen ñoom seeni waxu bopp ñoo respecté wul hmm. ñoo joxul cër yonent bi ñoo ko warmaalul waaye yàlla moom am na lu muy sàmm diggante moom ak moom hmm. moo tax la nga xam ne biir këram la tudd ko loolu noonu la demee léegi su ma jàllee ci li muy wax layatu xadr layatu xadr ñun suñ def nañ ci vidéo nee na moom xamul si xamul nee na xamul xamul sit boobu mosu koo dugg waa léegi yow koo xamul te man yàggul dara maa ngi déglu benn audio mu ne day tontu samay wax hmm. Euh, ci benn réaction buñ defoon ci xawma Ahmed Khalifa Niass bi mu fi waxee ma dégg sax mu cay wax wax yoo xam ne moom ca boppam man moom mii sax xaw ma ko comme di di dégg ni ay comme ay comme seen audio yooyu ñuy monté ci YouTube bi mm-hmm. mu wax ci ay wax yoo xam ne moom moo koy wax te xamu ca dara ay wax yoo xam ne daanaka wax lu ko leerul ndax maa ngi dégg muy wax naan euh, moom mi mënul wax ne moom mënul waat ne amul ñenn ñu nekk ci ginnaawam di ko financé nangam nangam te kii tut ndax tabaxal nañ ko école am alors que loolu c'est archi faux te nit ñaa ngi foofu ci live bi loolu mën nañ ko seede xam nañ ne loolu amul la muy wax ci layatu xadri ñun layatu xadri def nañ ci vidéo wax ne yàlla laylatul xadri amul fenn ci alquran bu mu wax ne di foo xam ne dafa wax ne bis boobu su ñëwee da ngeen ko war a xam la mu xam la mooy bis boobu ca la téere bi wàcc bis booba guddi googa ca la téere bi wàcc yàlla loolu la wax waaye waxul ne su ñëwee na ngeen ca def lii waaye na ngeen ca def lii waaye na ngeen wut a xam bis bi loolu def nañ ci vidéo ñun du yàgg depuis deux mille dix neuf sax yaakaar na kon layatu xadri su ñëwee nangam nangam nangam ñoom la ñuy wax naan layatu xadri maanaam benn septième jour la ak nangam nangam kan moo leen sant dara ci layatu xadri ndax yàlla moo leen ko ca sant yàlla lu mu wu ci bis ndax da leen jàppaloo ab bis layatu xadri yàlla wu ca dara lim wax mooy guddi googa ci la alquran wàcc ndax ni mu waxee inna anzalnahu fi laylati xadri noonu la ko waxaatee ci suratul duxaan inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin kon wax bi loolu la doon moom wax yi muy wut a saxal yëpp ah Moussa ma continuer ah, parce que comme moom am na yoo xam ne def na ay dix minutes ma continuer ah. ah soo soo defee dix minutes mu ñëw def dix minutes garaawul. non non non moom moo doon moom def na ay dix ah. minutes non mais mais xam nga comme que lu ñuy tane woon rek duñ ko. waaw ba tey garaaw léegi bàyyi ma arrêté si ko kon ma bàyyi ci laytu xadri bi. Hmm, su ko defee léegi après su ma ñëwaatee yeneen wax yi nga xam ne moom wax na ko. Hmm, hmm. Eh, ci ay affaire eh, ci ci moom maam ñoom yeneen wax yooyu ñuy wax na ci diine ji la bokk. après loolu danaa ci ñëw incha allah. waaw bisimilah. dama dégg. waaw ñoo lay oh, naa damay ci ay mbir rek yoo xam ne Moussa yaa ngi koy wax sax waaye xam naa ne peut-être da nga a jege da nga wax indi du aaya waxuma loolu de waxuma li muy indi de waxuma du aaya de da nga koy toll si li muy wax man mm-hmm. li ma mooy li muy indi ak li mu bëgg a layal ñaari mbir la mm-hmm. mi ngi koy répété damaa wax bu leer. moom defe ne yàlla subhanahu wa taala topploo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ko wax ma yonent bi léegi moom danaan jëf ay mbir jële ko ci ahlul kitab fan la ko yàlla subhanahu wa taala wax fenn yàlla subhanahu wa taala zootu maaj boobu wax mooy ne alquran day dëggal la jiitu loolu ko di loolu dëgg la da koy dëggal ci lan mooy dëggal islam islam ak tawhid lislaam mooy lan islaamu lillahi bi tawhid qiyaadan bi taa والبنات بشك لون موي توحيد توحيد موي موي الاسلام موي لي الله سبحانه وتعالى جوخ يونتي ولقد ارسلنا في كل امه الرسول ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لولا يالله يونتي يونتي ييب موم لا دي نيو دكر ndax yàlla subhanahu wa taala ba mu ñu ne yonente da jaamoo yàlla noonu la ñuy jaamoo loolu laa wax am fenn nekk alquran wax bal alquran da ko wet ci fi indi naa kon nag bu den ñoo naan waa dem leen vérifier loolu di vérifier ku wax ngeen vérifier de aay yi mu tudd ak nag ko dama ne aay yi mu tudd ak li may lay ak li mu koy géré daa wuuteeg li nga xam ne moom moo am kon nañu ba bu ñu jaxase xelu xelu nit ñi dana mel mu lekk moromam beneen mbir bi mooy li ma ko wax ci laylatul qadr laylatul qadr yàlla subhanahu wa taala digle wuñu fenn naam fuñ fa da ko tudd noonu rek كنا من دافع الكرة أي فوق يعني خلنا تلو في ليلة القدر فإن نزلنا في ليلة القدر ليلة القدر خير ما في دي واحد يدنا كتير جل كتير بيسبوه تيجو تيجو وهاي الناس من وين كوجا نشيخ مني وانا تنزل الملائكة تروح فيها تيجو تيجو الملائكة دين واج من ينسون سنو يدنا كتير ليلة القدر لين تيجو تيجو خاطر يلا نين مو جيم تيجو تي مو كم خدار كوجا نتبي صلى الله عليه وسلم من ينسون يدنا كتير لا لا من يلا تيجو waxu amul waxu ko amul yàlla digal na ko ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais daa ko indil beneen sagam boobu wut na ci loo xam ne man ay safran laa ko tudde kon baal ma ci wax ji fa nañ ko nandam gën a leer yàlla subhanahu wa taala nee na إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم يلا نينا limu li nga xam ne mooy weer yi te yàlla sunu borom fukki weer ak ñaar la yàlla mu ne ci weer yooyu am na ci ñeent yoo xam ne weer yu sacré la mu ne zaalika diinul qayyim lii mooy diine yi ci xoj mu ne fala tazlimu fiihinna anfusakum ci weer yooyu suñu nag fexe leen ba bu leen ci tooñ seen bopp te déglu leen bu baax nag nañ déglu bu baax parce que tappalee ba dama may teel a roose trop to roos na rek téereb yàlla bi yàlla fii def ñoo tuddal ne am na ñeenti weer yoo xam ne la ba pare daal nañu ñeenti weer yooyu su ñëwee nag taxee leen ba bëri ci toñ seen bopp ñàkk mooy bañ ci defee bakkaar ndax bakkaar dafay gën a yokk nañu wax Mbàkke Saaxo ci alquran fan lañ ñuy fekk te yàlla subhaanahu wa taala limal ñu ñeenti ñeenti weer yooyu ci fànn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 ليدي أجد أيوات إنه خملة من أشعي بو خملة دني وفارة تدير حي موي متو المريان دو دف مي لما يجتل في موي يالا نينا أي وير خملة وير يوي دي وير أجد فلق يالا سبحانه وتعالى تدير جان قرآن ما تسا تدير موباخ من أي يو لينا دفت لينا دفت دمني يو لنا قدواتي ولاية من نتعو موجود يو لينا تنطو لينا تنطو لولو تكون نلي من أي وير دباني la la waxoon ci audio bële ma la tontoon fële dem naa sa xam naa la xamuma loolu yitteelu nit ñi tey dañoo taxaw di débat di jàkkaarloo di wax ci loolu baaxoo yaa ngi jël cinq minutes di wax ci loo xam ne jëmut ci débat bi man waxuma ne tamit tey xawuma sa site yow dama ne xawuma site ña ngay tudd naan ñoom doon lañ tontu ñooñu ngay wax laa xawuma ni ma ngay ñan indiwuma lenn loo xam ne dama ko déggee ci ñeneen waaye loolu taxu ñoo jug tey dama ko déggee ci ñeneen déggee ñeneen waxal naa la nangam xamuma la xam naa la loolu لا يسمن ولا يغني من جوع لول سوكر دار لي امصل موي لي لاي واخ نيغا تونتي تونتي جي لير باين دي تود اي اي يو خامني لي لاي واخ بوكل لك لي لي واخ يونت بي صلى الله عليه وسلم جل التحريم يلا سبحانه وتعالى دفني ونتل يا شيخ لي لاي ديغال لك ما يلام جاني باسكو سو نيو تاخاو نان ما داكو خباري اك داكو وحيو لي ما بغ خمل استغرب لا موي ديفيرونس يونت يلا خباري كو اك مو mu daal di koy feeñal ay mbir lan mooy différence bi li mu ci alquran li mu dafa leer soo dem ak sa dañ ko ne lii du lii sa bi yoonam léegi yonent bi lépp lu ko yàlla subhanahu taala di wax moom da koo gént moo xam da ko tudde koo xabaari moo xam da koo tudde lépp waxyu la léegi soo demee wax yu andil ma yàlla subhanahu taala lépp lu mu xabaari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxyu la mu ne ma lam doon jox daawud daawud yàlla da ko doon waxyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam لب لكو يلا سبحانه وتعالى داري خبري وحي لك تواحي سيال لسان لكو يدك مينا يدو تشيخ يا شيخ واي لي جوب فو يرنتي دي لامي ديكلي يلا موكو جوبلي تودي كو خباري تودي كو خبر تودي كو نولا نيخ مو يرنتي بلام دان وح دي كو جيف تي ديني يلا سبحانه وتعالى لجوجي تل أمن دان وح دي كو جيف كم لين كنتوا لتي قبل با تتك وني كوتشا القرآن لو دي وني غير كده خم نموم دفن دفعي القرآن اللي يلير لمفك كوتشا القرآن بكجل تيالله سبحانه وتعالى دون خباري ينتبه صلى الله ننجل بخبار دون خباري ينتبه صلى الله عليه وسلم ينين بيل كم نمك خباري نتل دون خلور نجلي من بيت المقدس كم يالله سبحانه وتعالى خباري ينتبه صلى الله عليه وسلم لا يصح دم ده بمور لوح أي جلد بمور لوح يالله سنبرم كم نمك خباري yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis gudd leen qadar fan lañ ko war a seet comme ni mu xabaaree yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yan weer mooy weeru aj comme ni mu xabaaree yonent bi sallallahu alayhi wa sallam weer yan weer ñooy weer yi nga xam ne mooy weeru weer yi nga xam ne dafa nekk weer yu sàkkare yoo xam ne dañ cee war a moytu li nga xam ne tëddal ci moytu li nga xam ne mooy mooy mooy yàlla sunu loolu doo ko fekk ci li nga xam ne mooy alquran soo ne ma waaw yooyu yooyu arab yi ko xam xamee lay suñu fekkee am nañu pexe ba xam la arab ya doon dund ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wasallam yan weer lan doon jàppe weeri sacré kon ba waay ñu mën am pexe nag ba xam yonente bi sallallahu alayhi wasallam lam ñu daan wax ci li nga xam ne moom mooy moom mooy alquran day wax ci aaya bi gënal ko sërëxal sërëxal nu ko ne ko bayyi na li naas sërëxal naa ko sërëxal ma ko loolu wax yàlla sunu sunu borom la tamul lenn loo xam ne mu nga ci mu nga ci teg su loolu ne aaya la yàlla subhanahu wa taala dafa doon dafa doon wax jamono soxna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy jàng ca fa nga xam ne mooy seen i kër dina mooy kitaabul xikma xikma boobu moom mooy moom mooy sudna mais bàyyi nga ko ñun fii duñu waxtaan waxi bopp mel ni ku bëgg a woote li nga xam ne mooy laaj waaye ñu ñëw nag ci li nga xam ne moom mooy li nga wax ci li nga xam ne mooy nasaxal mooy al nafiq wal wal mansux yow ku dégg xam ne yow topp alquran da ngay alquran subat nga ci wër rek lu loolu ndax fekkoon ne topp alquran xam alquran dëgg loolu mos a taxawee nit nan ko يلا عندنا آية بين وقت وما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير من مثلها لول إن يواس من يوقع لول يلا صند الموقع يلا من الآية سودميتي سورة النحل في آية بيمي يلا لنا وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بس صلوا لي في الروح الوقت ويكون نفسكم لجاتنا ما يوحدين دويسوس يلا مهم say buñu jëlé jëlee aya aaya wéccoo ko tek fa benen aya yàlla nee na wa ida baddalna aayatan makaana aaya والله أعلم بما ينزل يلا خلنا ما لم يوجه قالوا إنما أنت مفتر يوحي من تبي صلى الله عليه وسلم ولا بل أكثره لا يعلم ما كسره يلا سبحانه وتعالى ما وحنا في دفع الهر يلا ما وصلنا إن تدو كل جيتو إنما سلطة تكتب آية بجيتو كل يوم تتوت جدو du wecc à chaque fois la nga xam ne moom la wax ci aay loolu pour lëndëmal xel ñu rek ngir ñu indi la jiitu إننا سلطانه على الذين يتولون إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ومؤيك تأمينه وإذا بدلنا آية مكان آية سايب نجل آية ويتكتي بلاك بنين آية لما ينسخ لنجل آية teg ci palaasam beneen aaya nga ñëw bukkoo bukkoo bukkoo la ji lu tax nga bukkoo wet da nga xam nga ne lii di nasar ak naasix bis bu saxee ci alxuraan te sax na ci alxuraan la nañ se nga taba ko lépp daal di daal di mab comme ni mu mabbee ci aaya yi ñu tudd yi xam ne ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla da ko doon xabaare leneen lu nekkut ci alxuraan mu koy jëfe ay saxaabaam di ko di ko jëfee mu koy digle yow nga ne loolu nañ ko bàyyi sànni ko sànni ko sànni ko fële ba ko jàppee yonent bi koo xam ne yàlla da ko yónni rek pour mu tari alquran daa tamit waaw maa ngi jégalu de. Eh, asalaamaaleykum. waaw. maa ngi jégalu bisimilah. man na dix minutes de ah? am na ne damaa jéng. bul bàyyee xel yooyu noonu yow xam nga yow daal xoolal. waaw mais xam nga dama mais xam nga danga nga mhm. xam nga xam nga da nga mhm. loolu moom euh, damay gis ne loolu ab loolu loolu moom xeetu échappatoire parce que wax bi wax dëgg yàlla lu nit di jeng fi parce que yow waxoo ñun ñooy wax. te li am solo rek mooy moom li nga xam ne moom lay wax. Mhm. li nga xam ne moom lay wax lépp. moom day wax ci benn mbir nga ñëw wax ci loola mu bàyyi ko jàll ci leneen te moom moo waxoon ne wax ji na nekk point par point te moom moo waxoon ne maa wax ji balaa ñuy génn ci dara na loolu leer ba pare te ni muy leeree mooy ñu taxaw ci lii ba yi ci war a ñëw yëpp ñëw ci xam nga waxaat na benn wax répété waat na ne maanaam man dama ne yonent bi da doon topp waa ahlul kitaab amul benn yoon bu ma wax ne yonent bi da doon topp waa ahlul kitaab Mm-hmm. dama ne la fi nekkoon ca xibla booba loolu téere yi jiitu ñoo ko jàngale yonent bi bi bi ko yàlla ta te soppeegut loola xam nga mu ngi wax naan màkk ay ñii dëkkuñ fa woon waaye Madina am na ñeneen ñu fa nekkoon nangam nangam yonent bi fa mu doon defee loola dafa am ñu fa nekkoon ñoo xam ne dañ daan pratiquer loolu muy pratiquer ñoom di jub moom da daan jublu ñooñu fañ daan jublu yonent bi yàlla tëbul soppi ci moom loolu ma wax ci wàllu ci wàllu koor yonent bi yàlla tëbul soppi xibla ca moom yonent bi yàlla tëbul soppi la nga xam ne moom lay def ci julli yonent bi li ñuy wax xam mooy wax aj aj soo demee ci alquran doo ca fekk loo xam ne da koy soppi ca la nga xam ne dafa jiitu woon dafa am loo xam ne dafa mat a xam alquran ku ko dul settantal mënoo cooy yeewu ndax mu ngi wax na ñun mu ngi wax na ñun dañuy indi aaya yoo xam ne la muy wax bokkut ak moom la muy wax kon moom li muy wax moom moo taxawul ci benn wax ndax man amul lenn loo xam ne indi naa ko di ci wax lu dul ne loo xam ne ab bu mu yëkkati lu lu dul ne loo xam ne ab laaj bu mu yëkkati woon la ci lu jiitu mom mo taxawul ci ben barab day wax ci li so beugé ñëw mu bàyyi lolu dem ci leneen lam njëkkoon na wax nak bala ma jàll ci leneen damay wax ci lolu ba pare lim wax ci laylatul xadri mune yàlla wax na inna anzalnahu fi laylatul xadri wa ma adraka ma laylatul xadri laylatul xadri xayrun min alfi shahrin tanazzalu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matlahi alfajri mais yàlla lamu wax ci sar boba la ko ñor mu ko doon wax lan la wax na ne guddi gi am na njëriñ lii waaye guddi googu lu ca xewoon la xewoon ca guddi ga mooy ci la wàccee téere bi ndax léegi wàccee gi ñu wàccee woon téere bi chaque at day ñëwaat walla guddi ga moom mooy ñëwaat yàlla li mu xam la mooy ci guddi googu la ko wàcce guddi googu nag ak njëriñ lu mu mën a am yàlla ñun waxuñu way gëm yi ne leen yéen guddi googu fexe leen ba xam ko di ca def nangam ak nangam loolu amu ca ndax soo demee ba tey ñuy surat 44 ñuy suratu duxaan soo fa demee yàlla waxaat na loolu ne inna anzalnaahu fi laylatin mubaraka di wane ne téere bi wàcce nañ ko ci guddi gu ñu barkeel loolu rek la wax tegu ca leneen loolu mii leen soo demee tamit ba tey ci suratu baqara yàlla di wax ci weer wi nga xam ne ci la wàcc muy suratu baqara muy surat de ay 185 yàlla wax na shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر falyasumhu ففا آية بايم yàlla نيوات دي نيو xamal ne ci ويرو ramadan ci وير ووو ci la واتي li ñuy wax alquran kon guddi léegi loolu mooy wane na sax ci loolu la yàlla di jàngalee ne guddi gee nga xam ne da koo barkeel muy guddi gi ñuy wax leetu xadri ci biir weeru koor ca la newoon mooy guddi ga nga xam ne ca la wàccee alquran ca bopp yàlla loolu la ci jàngale santaane wu ci benn xew-xew santaane wu ci benn jëf santaane wu ci lenn su fekkee ne gis na fenn fu ci yàlla santaane dara na ko indi wane ko te loolu amul mune legi léegi yonent bi mom la yàlla wax lolou nangam nangam xet boobu. non mon xol bee sot dafa am lo xamné ki ki xol bee sot ci lan. ah si bëgg wacce dara bisu laylatul xadri bëgg ka def dara. non legi xaaral ñëw legi limi wax ne yonent bi. manam lolou yàlla mom la ko xamal nangam nangam xet boobu ne dox lolou moy sunna nangam nangam lolou ne wax xam nga. ba pare mu mu ñëw ne waskurna maa yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikma même loolu muy wax su demee ci waxtaan yi ñuy wax loolu wax nañ ci ku dem ci vidéo quarante neuf wax nañ ci dafa am benn mbir moo xam ne ñoom dañ ko war a xam parce que suñ waxee ne xikma mooy sunna loolu da nga leen di laaj moom dama koy laaj moom ci boppam balaa maa wax ci loolu xikma mooy sunna kan moo wax ne xikma mooy sunna te na wax dëgg-dëgg ki ko wax ñoom la ñu wax ne kookoo ko wax xikma mooy sunna tanmone hikma mooy sunna ndax ci biir téere bi ci boppam baatu sunna dafa ñëw ay yoon léegi baatu hikma si firi sunna kon baatu sunna moom lan lay firi ci téere bi kon su waxee ne baatu hikma mooy loolu mooy sunna léegi kon baatu sunna bi nekk ci téere bi moom lan lay firi moom leneen li ci topp mooy ñoom lañu ñu ñoom dañoo gëm ne yàlla am na leneen loo xam ne da koo wàccee ci yonent bi ngir mu ko doon wax wala boobu bari bàyyi dégg sax mu ne lii ay wax la waaye léegi lu ñuy jëfe la yàlla la muy digle ci biir téeréem la ko diglee la muy la muy tere ci biir téeréem la ko teree la muy wax loo yonent bi ci biir téere bi la ko ko wax loo way ñaata yoon ci alquran la yàlla di wax ñu ñëw yonent bi ne ko ñu ngi lay laaj ki nàngam yàlla na ko waxal nàngam ñaata yoon ndax damay ni wax loo xam ne lu yomb la xam nga wax naan na suñ bëggee wax ne yonent bi loolu rek daan tari muy ki loolu rek la daan tari mais moo wax ci alquran ku dem ci maanaam surat vingt neuf ay cinquante deux kenn ku ci ne mën na dem vérifier ko yàlla dafa laaj أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون yàlla dafa wax ne ndax ñoo ndax ñoom lu muy nekk surat benn neuf ay cinquante deux ndax ñoom dalee na doyul wàccee gi ñu wàccee ci yow téere bi ñu di leen ko taril ñoom ndax dalee na doyul wàccee gi ñu wàccee téere bi ñu di ko ba tari ca ñoom yàlla mu ne ca dëgg-dëgg nekk na ci téere boobu yërmande ak fàttali ngir ñi nga xam ne dañoo gëm kon yàlla su waxee yonent bi ne ko ndax ñoom dalee na doyul mooy nekk surat vingt neuf ay cinquante deux ndax ñoom dalee na doyul wàccee gi ñu wàccee ci yow téere bi ñu koy tari ca ñoom kon ñoom ñii di wax nii ñoom wàccee gi ñu wàccee téere bi ci yonent bi yonent bi di ko tari muy jëm ci nit ñi ñoom suñ ko fekkee woon kon ñoom loolu du leen doy dañuy xaar leneen te leneen loolu ñuy xaar muy seen sunna soosa dama leen laaj lan mooy njëriñ li ban njëriñ la am soo demee ci alquran yàlla moo xam ne ne yonent bi fàttalikat la woon lan la ko wax fa zakkir innama anta muzakkirun fàttalil yow kat doo lu dul ab fàttalikat yàlla bi muy fàttaliloo yonent bi lan la ko daan fàttaliloo ku dem ci surat cinquante verset quarante cinq mi verset mujj ba lan la yàlla wax ci aaya ba wa ma anta alayhim bi jabbaarin fa zakkir bil qur'ani man yaqaafu wahidi yonent bi fàttalikat la woon lan la daan fàttalee alquran yàlla moo ne ko fàttalil ci alquran waxu ko waxu ko ci alquran ak sunna waxu ko ci alquran ak leneen fàttalil ci alquran yonent bi xuppekat la woon yàlla moo ne ko innama anta mundirun mu nekk ci maanaam ci suuratu rax bi muy surat treize aya sept yonent bi su daan xuppee lan la daan xuppee ci aaya boobu ma wax sànq ci ginnaaw surat six aya dix neuf قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم لتي يالتك وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ يلنت بي لما دان كوبي موي القرآن دو القرآن اك سنة دو القرآن اك لنين تيالا مو خمنا لما وحي مجمت يلنت بي جوجي تيري بي موي دق يالا وخو لو جوغي في تيري بي اك لنين لو جوغي في تيري بي ولا في اوحينا اليك من الكتاب هو الحق سيد مينيت ماتنا دي لا كون باخنا ني جالو xamna ni ko sunu len jelaté ku ci nek ben yon rek ñu xamal ko parce que lepp mënu fay xaj leen def 3 heures de temps

cervical. Nah, karena Imam Dajjal ñu jéem a seewaat su dugg ñu jël mbàkk saako def tàggatoo ça nous def noonu xam naa. waxoon naa suñuy suñuy. mooy nekk dernier dernier. fii tàmbale rek mooy fi xam naa dañuy tàmbale rek mooy fi nga xamee ne foofu la jeexale mooy moom li muy woote di ko def pour topp na ko أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون mooy du leen doy ñoom wàcc na ñoom alquran ba ñu koy jàng ci ñoom yàlla subhanahu wa taala ñun lay waxal nañ dellu ci aaya bi jiitu وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين نيوم دنيو وحنا نيوم نيوم جاك رجنت يا الله سواك ينتم أي آيات يجيك في برامم نيوم نيوم بقي أي آية يا الله ملنا كده خير لي ويا كده دلنا دوت لو نبقي كلنا انا فوفو فان لا يالا واخي ده كون لينين لوم لين انديل لو نيكو تا القران بولين كو جيل دون واخي باكي سا خول ما سا لي مي واخ اك الاخوان دي واخ نيار لا تان ما نكو مو نان ما دين لا يالا من تان مي نان ما دا ما واخ لي آه، لي غاي واخ بوتي ناك من لي دما ني يو لي مي واخ اك اي لي لي اندي دي نكو يفيري دا بوك اك لي مي واخ دا تي غوت لي مي واخ بال دكو يدك فيني ودنا وقالوا لو انزل عليه ايات من ربه قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين انا فوق لك وان لم لك اني وحنا اني لم اني لم اعرف او لم يكفيه او لم يكفيهم ان انزلنا عليك الكتاب لتتلى عليهم يوم يعني تيري بيني واتي بولان بلين بقى لنا ني واتي تيري بيني ني واتي جانو ني بقى يرمي آية انا فوق اكلي غامي موي ني بول توب كلي غامي موي سنة ما كسا هو لاج ناو لاج فان لا يالله سبحانه وتعالى وكي يكون توب لا جوجي تيري نبي صلى الله عليه وسلم القرآن ديوكو اي اندي آية هم لمي واخ كدو رد دوجي يالله دفا واخ ني توب القرآن واو yàlla mooy topp alquran ndax topp alquran mooy bul topp la sunna te sunna jóge ci yàlla sunu borom amut yàlla subhanahu wa taala wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal di fàttali nit ñi alquran waaw ndax yàlla dafa wax mu fàttali ci leen alquran fa la ko waxee loolu su di gis nga yow bal ñu gis nag bari ngir yu bari yu saxal ne yonent bi sallam daan jëf di wax te ba tey nag ñu ci loolu da nga koy bàyyi dem man juguma ci loolu de yow yaa ko jóge ak balaa a aaya boo xam ne لان هم موي سوره القدر يعني خدر خدر كان في القران خدر لولو موي الكسر القران هو كان واجب ليله الخدر ليله القدر موي ليله الكسر لولو ليله القدر موي قدر القاف من كل جن نيتشر اقصى اللسان لولو صلوا القران فهو جانج يكون في يلا واجب الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته نكي بلا غير نودي دمو تفون نكي ديوا القران لقي نكي moy nga daal jël xuruf ne yonte bi sallallahu alayhi wasallam bako yàlla wàccal alquran lamu ndek def moy di gaawante pour pour daal alquran ñu góore yàlla na ko tawal na ko bàyyi ñoo koy ñoo wala tuxarrik bihi lisaani taajala bi bul mu ak tagawantu mu kon alquran jàng ko ñu wéré nekkul suufel di dara leetul xadar la leetul xadar la nga dama la indi leetul xadar indi ci ay lënt ma bala foofu indi la beneen bu ñu wàcc point bi nga naa maa génn point bi man di la beneen aaya boo xam ne yàlla ñu tudd weer mooy weeru ne la fan weeru ak yooyu fan la yàlla subhaanahu wa taala waxee ci alquran yonent bi mooy weeru aji yonent bi moo taxaw saxaaba yi wax leen ne weeru aji nangam ak nangam di koy jëfee loolu waxi yàlla sunu boroom la ñu loolu lañu tuddee sunna nga ne ma ci biir wax damay laaj ci lan mooy xikma ci alquran نانوسوفيك بحكمة ميسن كنسن ميلان شرطة آه يا شيخ أشكر اللي دفع لا تأتي لك أراب وأشكر أن أراب دانغوكو مطان بني جنيو تقامني كون في هارقة أمن اللي خمني ما مرادف كون عندي بين بات عندي بين بات بيتيري لما يجري نعم البروبلم لول البروبلم والسنة إصلاح لك تدي كون ولا نخ نروح للسنة نلا ورتو تدي سنة pour mu doon sunna loolu pour istilah kese la ñu lan lay wax mooy lan mooy la yàlla su la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon di ko digle ñu koy jëf ci kanamam te daawu ko mu koy mu koy nangu te nekkul al alquran bu ñuy bu ñuy tari tuuti ko sunna tuuti ko lu ne nekkul baat bi la ñuy wut jëf ci la ñuy wut yàlla subhaanahu wa taala lii di xekma tay bu ñëwee ci alquran dafay ñëw mufradal wala mu ñëw maqrunan sunna dafa ñëw ci alquran ci ñaari anam mooy yenn saa yi di ñëw li nga xam ne mooy ànd ak li nga xam kitaab su ànd kitaab siyaq bi moo ñu won nekk la muy wute la muy wane mooy ne yaar yonent bi ñaari mbir la doon jàng loo xam ne mooy téere bi ak leneen loo xam ne tey subhanahu taala moo ko moo ko wute yenn saa mu ñëw nag bu ñëw ci li nga xam ne moom mooy ak ànd ak kitaab su boobaa am na alquran ñëw na ci aay yu bare bare bare bare yoo xam ne xikma la fi nekk mi mooy misaal su doo ci ci sootu xajar sol naa fa ne saxu allah ma yokk seytaan su ma yoxkim foofu aay boobu noonu xikaam muy asl dina ci ñoom ñëpp seen as mooy xaa ga mim fii nii li muy firi mooy soge yàlla mooy wax ci sootu sootu luqman xekma foofu mooy al al al fahim yàlla na wala yu'ta al xekma faqat uutiya xayran kathira ku ci sootu baqara ku jox xekma jox la la lu bari mooy xekma te soo jëlee sax aay yi ñëw yëpp ci xekma donte yéen moo fagal bis boo ko jëlee ci sens ko ci xekma day yëpp day delluwaat ci li nga xam ne moom lañ jëlee ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ndax day delloo ci li nga xam ne mooy fahim day delloo ci li nga xam ne mooy jëlin bi nag daal di koy fexe ba mu ba mu ba mu ba mu sange subhanal xikma boobu moom la jox ibrahim moom la jox li nga xam ne moom mooy Moussa alayhi salaam moom la jox li nga xam ne mooy Isa mooy lan wax yu yam lan den wax yu te nekkul te te ñoom yan doon yan doon yan doon jàng ba répété te kii wane ko ci yëbën bi la répétition est pédagogique ci alquran amul fenn amul fenn fu yàlla subhanahu wa taala waxee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne لم يؤتي مهم القرآن كثلا يالله يعني سبحانه لم يؤتي ينتبه صلى الله عليه وسلم القرآن لتا لتا بغ تالا القرآن لتا دي دي بم دي موتاح مداج ني جهن ينتبه صلى الله عليه وسلم نير ني ني لير الله القرآن يو داري كوي جنرالي جي دي ديتاي مون نتو تي جي خامي مو نك سورة القدر ليلة القدر مون نتو تي سورة ااا آه آية واحد حج مون نتو تي aay yi nga xam ne moo ñëw ci li nga xam ne moom mooy les mois sacrés te aay yu dul jeex la nag yu dul jeex la koy leeral loolu ngay woy seen sunna boobu mooy waxi yàlla sunu boroom yàlla sunu boroom moo wax yu yeneen si bi sallallahu alayhi wa sallam lenn ni mu jël ko def koy waxam directement ñu koy tari lenn ni mu jox ko yeneen bi sallallahu sallam mu koy leeral nit di ko ko di ko ko jàngal wedd bi wedd nga bëre ñaari ñoo bokk ñoom ñooy ñoom ñooy li xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy ànd yaa ngi wax ci euh, suratul qadr euh, ne yàlla subhanahu wa taala dafa tudd li nga xam ne mooy laylatul qadr waaye tudd fa leneen lan moo tax yàlla tudd laylatul qadr lan moo tax yàlla wane ñu ngeen laylatul qadr lan moo tax yàlla wane ñu ci alquran jël ab aaya suurat bu jeex tak wax ci laylatul qadr mais la xam ne mooy jurwaay yàlla sunu mooy lan mooy rek ñu ne xam ne benn bis boo xam ne benn guddi boo xam ne ci la alquran wàcc jeex na mu tuddee ñu ci nekk. waaye mooy rek am naa xaar bu wàcc loolu lan mooy ci lan mooy eh, ban borom xel mooy wax lu mel noonu yàlla subhanahu taala ñooy wax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko guddi boo xam ne guddi bi mi ngi nekk ci weeru koor guddi goo guddi goo xam ne guddi gu am barke la guddi goo xam ne moo gën junni guddi malaayka kay da ca da ca da ca wàcc la moo tax mu yàlla wax ne maa ngi wàcc bis bi guddi boobu waxuma alxuraan lay wàccaat fi mu toll waaye guddi googu yàlla wax ne saa yi bu ñëwaatee ak malaaka doon wàcc dootu malaaka di wàccaat fi mu toll ci guddi googu noonu ngir lan mu ne guddi googu yàlla mu ci rek mooy doo doo doota dog alxuraan ba keroog fajar di fajar ñëw guddi googu di ñëw ñu ci soxla ci ku la fekkee kuy wax ne dafay réeréeru rek bëgg jël nit ñi teg leen ci ab digg na dañ la ñu dëgg alxuraan mooy wax doon waaye yow mi koy wax sax xam dafa weex waaye yàlla subhanahu taala ci alquran dafa jël mbir yu bari yoo xam da koo jël daal di ko généraliser yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ñu ko moo ñu ko moo ñu ko jàngal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ñu ko moo ñu ko xamal xamal googu moo ñu ko xamal ci kan la jóge ñu ñu jóge ci yàlla suñu borom moom moo ko xamal comme ni mu ko xamalee moo ñu maa yonent ko ne wax in huwa illa waxyu yuha yonent bi sallam du wax lan jóge ci boppam lu wax yàlla subhanahu wa taala moo ko ko moo ko ko moo ko ko waxlu itam ma ngi ñu desana benn minute yàlla subhanahu wa taala dafa wax ci aaya bi dafa wax lu leer dana wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llah wal xikma inna allaha kaana latifan xabira mu tama koy laaj léegi xikma googu yàlla yéegi doon tari waxi den tari la wax wadkurna ma yutla دولنترينارين ويلن الكتاب والحكمة ليك ما ليدلو لاجي حكمة جوجو يلن تبي صلى الله عليه وسلم دون تاي تيك نيجم تيلا ني سحنامي نينكو جيل دادي كوي دادي كوي تدو لو دون ok léegi kontaan kontaan nañ si sa intervention imam xam naa ni que da ngay profité nga faale tàggatoo wala kii xam nga pour que benn yoon nu mën ko continuer parce que live bi def na léegi léegi ñoo ngi waaw trois heures de temps comme ça moom tamit su duggee mu def kàddoom bu mujj mu def lépp nu daal di xool beneen yoon bu ñu koy mën a jël continuer parce que lépp mënuñu koo wax si benn live bii nii xam nga du fi mat lépp lépp lépp lépp mënuñu koo wax benn yoon daal. ala kulli haal euh, Cheikh al Moutarid moom ci li nga xam ne moom laay jeexalee. Ah. Euh, ala kulli képp koo xam ne da ngay wax ne da ngay yem ci alquran da ngay wax yurut yurut ci naka ne mooy ëwwaleen yemoo ci alquran mooy alquran yem ca mooy daal di def la alquran digle yàlla subhana taala yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yónni ko ci ban anam daf ko yónni la koy jox ñaari mbir mooy lan mooy mu jëri ak nit ñi tari leen alquran ñu dégg ko waaye rek daal leen di leer alquran boobu yàlla subhana taala wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko surtout زوجته بروجا سلام wax yàlla subhanahu wa taala dama dégg noonu lay dégg bu baax kay da ko fi daa qara'nahu fattabi qur'ana say bu ko jàngee toppal alquran mooy bul jël alquran di gaawantu foofu noonu lan ko indil mooy xuruuf yi la alphaz nga wax ko yàlla sol daal ko ñun ñoo koy ñi nga xam ne ñoo koy jël daal di koy dajale daal di koy daal di koy daal di koy boole yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daal di koy dellu nag daal ne ko ñun ñooy ñi nga xam ne ñoo koy finaalé naa dayaane ñoo koy ñoo koy leeral nga xam ne yàlla dana jox yónni ñaari mbir bu ko jox quran bi dajale bi jox ko li moom mooy bayaan bi soo ne dajale bi ni mu ko dajale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo dajale alquran te yonente bi dajale alquran ñëpp xam nañu alquran ñu ko dajale ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xam ne noonu lañ sunna ñu ngi ko bind ginnaaw yonente bi sallallahu kon naka la dajale alquran yonente bi sallallahu yàlla dana ko dajale mooy jox ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàng ko di nit ñi dajalu ginnaaw nan la ko yàlla leerale mooy leeralal ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu leeralal ko mu leeralal ko nit ñi اي بي يا دفني انا نحن انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك اي بو امط اي يا دفني يلا دفني جن انت بنيو وقت يوم لين هانو الذكر الذكر بوب نونو لين كو فيري القران قوم من كاي فيري مو نيو كو لوتو دي واتي من ني يلا تو واتي جن انت بي صلى الله عليه وسلم موي غير ليرال نيت ني وخد يلا ليرال لتبين ينت بلا وخل لا يوم نغ ليرال li tubayyina linnaasi maa nuzila pour nga leeral nit ñi ñoom la ñu wàcce ci ñoom Mbàkke Saaxo ne yonent bi leeralut alquran yàlla nee na ko li tubayyina yow yaay leeral al alquran te yonent dafa leeral alquran moo tax aay yi ko laaj na ci yeneen aay yu jeex ñu wax fii ba suba du ñu wax fenn du ñu wax fenn fan la alquran ñëw tuddee loolu te ñëpp xam nañ ne dëppoo ci de ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu jëfe na ko li nga xam ne moom fa la débat waroon jeexee depuis le début mooy mbàkke saw ba mu tëlee ba mu tëlee indi ñu ci alquran fan la yàlla subhanahu wa taala tëdd baytul maqdis mu tële mu daal di bëgg inventel beneen mbir mooy ne yàlla subhanahu wa taala yonente bi san doon topp ahlu kitab te moom moo waxoon ci njëlbeen bi lépp ci alquran moom moo wax ne lépp dañ ci alquran lépp dañ koy fekk ci alquran ñu ne kon bitul maqdis bu moom fan lañ koy fekk mu ne ahlu kitab yàlla subhaana lépp ak alquran mu ne ko yonent bi sallallahu alayhi la mu gàggante ay soxnaam gàgganti leen ba ñu gàggante ko ba yàlla di leen dëkku ne nañ tuub mu ne ñu loolu yëfi nekk la yëfi nekk yàlla dëkku ñu alquran yëfi la yam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mu ñëw tuddee ay ne weer yooyu nañ ca moytu mooy yàlla suñu borom dañu xam ne la yonent bi wa tanaazatum bi shay ñu ne ko luy def mu ne dellu leen ci yàlla ko yonent am ñun sunu dund gi mënuñoo dellu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu dañuy dellu ci yàlla sunu sunu dañuy dellu ci ci sunnaam mooy li nga xam ne moom la fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi ñu la di koy toppali ci moom comme te am na lu ci wax loo xam ne nañu amee certitude ne alquran yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax noonu lañu amee certitude ne loolu ci yonent bi sallallahu alayhi la la la jógee te nekkul duñu wax nit dañ koo gëm dañ koy jaaree ci yoon ci xam-xam bu leer bu xam dañ koy wax ne lii mooy preuve yi ne lii wax yonent bi sallallahu alayhi alayhi wa sallam la comme ni nga waxee lépp mu dox ak tey fii ndaxte am na yeneen mbir yu bari yoo xam ne waroon nañ ko indi waroon ca ñëw mais yàlla subhanahu wa taala dina dogal wax ji euh, gudd na kon mën nañoo euh, yemele fi wax ji su fekkee ne beneen yoon am nañu li euh, yoo xam ne mooy beneen occasion mu nekk débat boo xam ne face à face day doon am ku ko organisé nga xam ne li de laaj nit ki di tontu nit ki di li ngay gis dañ koy laajub laaj mu daal di xaar ba ñu wàccee ñeenteel laaj ba dem wëri wëri wëri wëri su amul lu mu wax mu am lu mu ca lu mu ca laxat daal di demaat loolu lépp loolu moo tax jubloon débat moo tax ñu bëggoon débat bi nekk benn par par benn mais finalement nii la demee ñu yàpp naa ne li fi wàcc mën nañ ko doyloo leer na ci ne yàlla subhanahu wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wàcc ci ñun yonent bi li wàcc ci ñun pour ñu pour ñu leeralal li nga xam ne mooy alquran loolu tam wàcce ko ci wàcce ko ci ñun te loolu mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di la jaajëfal baax euh, Cheikh Moussa euh, ci dalal bi bi ñu dalal fii euh, di jaajëfal mbokk yi doon déglu incha allah di joxe ndaje bismillahi subhanahu wa taala ba beneen yoon barakallahu fikum maa lay remercier si temps bu nu jox ak euh, ñëw tamit xam nga leeral yu nu àndil tamit ñëw took waxtaan si yoonu islam ñëw fas yéene xam nga rek wàccee sa bopp ñëw wax ñu mënoon waa lu nekk mënoon nga ko see xam nga rek xool daan ne ah kii jàngul wala ah kii xoolal xam nga def comme ñenn ñi di def mais alhamdulilahi rabbil alamin euh, sa nite ak tamit euh, sa xam na ragal yàlla tamit tax ba tey jii nii nga ñëw pour jàngal nu dolli nu du lay sant di la gërëm te di la ñaanal yow tamit fépp fu nga nekk rek yal na la yàlla gën a continuer xam nga sàmm di la dolli di la ñaax xam nga defal la ay tawféex yu bëree bëree bëree bëri. nu lay sant barakallahu fiik Moussa am na benn euh, am na naa cinq secondes mooy ne dama koo fàtte te bëgguma ci dugg na débat bi hmm. mooy ne Mbacke Sakho wax ne dama ko wax de dañ koy faral école moom moo jël ay wax daal ne ñun dañ ñuy dañ ñuy ni ñu jëlee moom moo jël ay wax ne ñun dañ ñuy dañ ñuy fay wala bokk ñi ne dañuy yow di yuuxu te ñoom dañ leen di dañ leen di financé di wax Arabie Saoudite loolu ma ne mhm. su fekkee ne am na ku ñuy financé moom lay doon waxuma dañ ko financé dañ lay famille la jóg moom lay doon moom lañu xëy gis ko muy tabax école moom lañu xëy gis ko situation changé waaye waxuma dañ koo fexe moom moo accusé ma delloo ko accusation bi sans pour autant daal di nga daal firmé ñun lépp lu ñuy wax ci dëgg lañ koy teg fu leer lañ koy fu leer lañ koy euh, lañ koy teg ko dénk nag mu bàyyi mën a mën a ji euh, surtout yi nga xam ne lu wax rek man nii man nii taxu ñoo jóg dana mel ni nit ki dafa mel ni day set yoo xam day wut daraja te daraja amul solo nañu yem ci alquran ak ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yem ci li yonente bi sallallahu alayhi jàngal am tawfiq barakallahu fikum wa salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam jërëjëf yaay moom dernier entrée. xam naa Mbacke Sakho daa xaw a اوكي السلام عليكم ما شاء الله لا شو allah sant yàlla xam damay tàmbalee ci moom fi mu mujjee mhm. ok yaa ngi dégg ñoo lay waaw moom dane man dama wax ne ñoom dañ leen di financé ba wax dama indi mhm. dama indi benn article mhm. ne mosoon naa fee partagé ci jamono bi fi Trump nekkee la prince héritier bu Arabie Saoudite moom ci boppam mu ne ñoom ñoo doon financé li ñuy wax la wahhabisme article bi man moom laa yor partagé ko moom mu ne loolu muy wax ren financement ñun la ñuy financé ñun ñi nga xam ne ñu ngi tabax suñu école xam nga léegi loolu laa wax baa mu waat na ko mm-hmm. mu ne ñun dañuy tabax suñu école ma ne loolu wérut mm-hmm. loolu mu wax nu wérul te loolu en deux mille vingt wax naa ko ci télé bi ne ñun nous som en location te jusqu'à maintenant nous sommes en location tabaxuñ ab école parce que amaguñ sax lu ñu tabaxee école ñun xanaa te la mu waxoon loolu la firndeel mu ne léegi moom mi situation changé est-ce que moom dafa xamoon sama situation man bien avant est-ce que dafa xam man ci lan laa doon dund bien avant kon loolu problème la man sama situation naka la changé te moom ñoom ñëpp comme nit ñi biñ may xam fa ma dëkkoon lan la doonoon ban genre dëkkuwaay ca laa dëkkoon ba tax mu ne sama situation dafa changé te moom xamuma xamul lu may dund ndax li koy wane rek li mu wax ne maa ngi tabax école alors que loolu wérul te la ma doon wax ñoom financé bi ñu leen di financé loolu article laa indi woon te mu doon lu wér te article ban ba léegi maa ngi ko yor mën naa la koo partager nga publier ko ah waaw dinaa la ko yónnee kon incha allah nga mën ko partagé article boobu ca boppam. su ñu leen mu partagé ñun du ñuy waxtaan on partage tout. jox na kon kon jeex na incha jeex na incha dinaa la ko partagé loolu ci jamonoy Trump la ko waxoon mu doon lu leer. mu ne occidentaux yi après la deuxième guerre mondiale ñoom ñoo doon sàkku pour ñu yaatal loolu ñuy wax la wahabisme hmm. noonu la demee man loolu laa wax. léegi leneen li ci topp mu ne ñun xawma seetantal alxuraan nangam nangam xeetu wax yooyu muy wax moom wax dëgg yàlla waxtaan wi ñi nga xam ne déglu nañ ko lépp xam nañ ni waxtaan wi deme su ko neexee mu ñëw ne moom tontu na leer nangam su ko neexee wax ko loolu moom moom la kon ne man awma ci benn problème li mu tontu leer na leeru ñiy déglu mën nañ cee wax lu leer loolu mooy li ci am solo dafa ñëw wax ci baatu xikma ma ne ko xikma moo ñoom dañ koy firee sunna ma ne leen ma ne ko xikma ana kan moo ko firee sunna sànq sama wax ji ma mujjee wax benn question la amoon muy ku ko firee na xikma ñoom lañuy def seen tànnu ceeb booba naan foo demee ci barab bi xikma ak ci barab bi xikma fii ak fii sunna la fii firi day wane ne yàlla dafa joxoon yonent bi téere bi ak leneen ñàkk seetantal moo tax ñu koy wax alquran loolu ku dem ci vidéo yi ñuy def vidéo quarante neuf maa ngi dégg sax mu ne moom dafa mel ni daraja lay wut daraja ku koy wut doo nekk ci mbir nekk ci tariixa te loolu am ay seede am ñu ko mën a seede am ñu ko fekke nekk ci tarixa am ay taalibe ci bi ngay nekk xale bu ndaw bi ngay am vingt deux ans nga am ay taalibe ànd ak taalibe yooyu lu ëpp dix ans nga xëy tas mbooloo moomu ba pare ñu ne la yow mbooloo ngay wutaat wala yow da ngay wut daraja man mënuma am jaar-jaar bi ba pare naan damay wutiwaat ja fan laa koy wutee daraja mën na weesu nga toog ci barab nit ñi ñëw dina la sukkal a raamal nangam nàngam nga xëy arrêté loolu dëgmal yàlla sa borom te li tax nga dëgmal yàlla boromam dafa am li tax nga dëgmal yàlla sa borom daa am loo gëmoon ñu jàngaloon la jàppoon ne loolu mooy dëgg nga dem ba ci téere bi yàlla fekk fa lu koy wetti yonent bi daa ko xam nga moo ngi wax ne ñoom liñ ñoom liñ gëm mu lu doy waar lañ gëm ñoom en réalité dañuy weddi yàlla te xamuñ ne ñu waxee ne yonentu bi mooy leeral alquran xam nga yaa koy dégg sax mu ne wa anzalna ilayka zikra nee na bërëxalu ko da koo bërëxaloon loolu <laughs> dégg na bokk ci ñoom ñu bari aaya boobu dañ koy lay loolu sax du aaya daggitu aaya la ñuy layee aaya bi tàmbalewul ci wa anzalna ilayka zikra aaya bi mu ngi tàmbalee ci bil bayyinaati wa zubur te wax ji tàmbaleewul ci bil bayinaati wa zubur wax ji mën na koo tàmbalee ci aaya 43 bi ko jiitu mu ngi nekk surat 16 aaya 43 44 te wax ji tàmbaleewul foofa wax ji su bëggee xam fu mu tàmbalee na dem ba ci aaya 33 bi lii man def naa ci uju yu gudd def ci uju yu gàtt di ci wax yàlla li mu wax dafa leer yàlla da ne dafa am dafa dafa am ñoo xam da leen a laaj ndax ñoom dañu doon xaar yàlla wàccee ci ñoom malaaka loolu lañ leen laaj wax ji di dox ba yegg ci aaya trente ci mujjug aaya trente bi yàlla dafa laaj ab laaj fahal ala rusuli illa al balaagul mubin ndax ndaw yi dafa am lu leen war lu jottali gu leer te yàlla moo xamal yonent bi ne ko yow dara waru la lu dul jotal lu dul jotal yàlla moo ko wax moom su ñëwee wax na yàlla day leer moom su wax ne yonent bi mooy leeral la waxu yàlla yàlla la weddi te su waxee ne yonent bi mooy leeral waxu yàlla kon dafa mel ni waxu yàlla yi leerut mm-hmm. te su waxee ne waxu yàlla yi leerut weddi na yàlla su waxee ne waxu yàlla yi leerut yàlla nee na ñuy weddi ne aaya yu leer la wàcce yonent bi ñooñu ay faasix lañu mooy ay pervers lañu na kenn ku ci ne dem xooli surat 2 aaya 99 surat 2 aaya 99 yàlla lu mu wax wala xad anzalna ilayka ayatin bayinatin wa ma yakfuru biha illa alfasixuun dëgg-dëgg wàccee nañ mu jëm ci yow ay aaya yu leer te mu ne loolu ñenn duñ ko weddi lu dul jalgatikati mi faasixi di pervers yi loolu la yàlla wax kon képp koo xam ne da ngaa gëm ne yàlla ay aayam leerut ba dafa soxla ku koy leeral xamal na yow yàlla nee na ñiy def loola ay pervers lañu mu doon lu leer te yàlla moo tuddee téeréem téere bu leer bi alkitaabul mubiin kon nit ki su ne téere bi dafa soxla ñu koy leeral kon weddi yàlla yàlla moo tuddee téeréem ci surat 6 aaya 114 alkitab mufassala téere bu ñu faram fàcce bi muy le livre détaillé kon nit ki su waxee ne téere bi nekk lu ñu détaillé ba yonent bi dafa war a ñëw di ko détaillé kooku weddi na yàlla ndax sànq dégg nga li wax bi muy wax ci awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim mi surat vingt neuf aya cinquante deux daa xooli woon aaya <laughs> daa xooli woon aaya yi aaya boobu su ca demee moom sama référence yi may tudd amal na ko njëriñ loolu moom su aaya boobu su ca demee yàlla man bi ma waxee ba pare lu ma wax dama ne ñooñu nga xam ne ñoo fekkee woon yonent ba yàlla waxoon leen ndax ñoom dalee na doyut wàccee gi ñu wàccee ci yonent bi téere bi ñu di leen ko taril maanaam ñu di ko tari ci ñoom ma ne ñoom ñooñu kon suñ ko fekkee woon kon la ñuy tontu mooy kon ñoom doyu leen loolu la waxuma ne loolu ci ñoom la wax dama ne ñoom suñ ko fekkee woon ñoom konoon ñoom loolu lañuy tontu parce que ñoom dañoo gëm ne téere bi doyul am na leneen lu war a ñëw te loolu mënu koo layal loolu wax naa ko maintes fois gis nga yooyu muy wax noonu yooyu muy expliqué noonu aaya yooyu ñuy layee ñoom aaya bu ci mën a doon aaya yooyu mën nañ caa ñëw fii ba ginnaaw ëllëg duñ ca wax lenn ndax du ndax set nekkul c'est pas la première fois may wax ak nit ci aaya yooyu li wax ci wàllu xikma may ko léegi xikma kan moo ko firee sunna soo demee ci ñoom dañuy wax ne ki ñuy wax imam shafihi ñoom ñoo koy jàngale moom moo firee xikma sunna léegi xam nga yaa ngi dégg mu naan ay comme li ñuy wax taraaduf mu ne xëy na daan jàngul arab moo tax nangoo ki nangoo ci woon dugg moom dafa xamul xamoo ñoom dañoo xamul ñoom dañoo xamul man mën naa di wax li may wax ci alquran ñu naan ma ay xam dara ci arab ak nangam nangam wax yi xam nga yooyu ay waxu ay wax yu kenn xamul li ñuy wax taraaduf bokkut ak lii de parce que baatu sunna dafa ñëw ci alquran amul benn sunna ñoom dañuy jël sunna di ko moomale yonent bi yàlla ci alquran amul benn sunna bu moomale yonent bi amul kenn du fekk ci alquran sunnatu muhammad amul kenn du fekk ci alquran sunnatu nabi amut kenn du fekk ci alquran sunnatu rasul amut te ñoom dañuy wax sunna yonent bi mooy rasul sunnatu rasul amut mënu laa wan benn boo xam ne loolu daf ñëw ça n'existe pas amul baatu xikma ci barab yi muy wax yépp na dem xool ci suratu isra muy surat 23 ci surat 17 lu commencé ci aaya 23 ba aaya 39 yàlla moo fa indi ay aaya ba ci 39e aaya bi mu ne ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه لي بوك نك ليغا خامن سا بروم موم لا لا وحيو في حكمه خامن واخ بوبو نوم دون تيري بي سو تي ديمي دا فا ام اي ايا يو خامن اي بريسكريبسيون لا موي اي ديغل لا ما لي نيو اي دوغال لو خامن يال داكاي ديغ خامن تي لي ديغل اك لي تيري ام ايا يو خامن اي حكمه لا ايا يو خامن يالا تي لي جانغالاي ni nga xam ne noonu la ñu war a doxee ci kaw suuf ni nga xam ne noonu lañu ñu war a jëflante ak ni ñu war a doxee nga xam ne bokkut ak li yàlla di digle ak li muy tere lii ci wàllu dundin la jëm loolu mooy xekk su ko yàlla di wax ci wa yuallimuhumul kitaaba wal xikmata al kitaab mooy digle yeeg tere yi al xikma mooy yi nga xam ne ay doxalin lay jàngale te loolu mooy li nga xam ne moo ñëw ci téere ndax yàlla ci boppam téere bi moo ko tuddee alxakim wax na yaasin wal quraanil xakim kon dafa am loo xam ne ñoom dañ ko war a xam lii ñuy wax nii yëpp ñun dañ cee ñëw ñun ba pare dañ cee wax ñun ba pare amul lenn ñoom lu ñuy layee luñ gëm lu ñuy layelee luñ gëm lu dul na ñun loolu wax nañ se ba pare loolu amul amul lu ñuy layelee li même li muy wax naan ay inna iddata shuhuri inda allahi isna achara shahran ak lu muy wax naan alhajju ashhuru maalumatun loolu yëpp su demee ci vidéo yi am na vidéo boo dugal yow fan yi muy wax ci wàllu tabaski na dem déglu ko xool lu ñu wax ci aj yow ko ya déglu ko vidéo boobu mooy sama vidéo bi man non non boobu ma dugal wi wax si tabaski ba fin bi am ah dugal sa vidéo bi kay moom déglu am na beneen vidéo bu ma dugal am na ñuy jéem a si suuf xaw ma boobu ndax daal na. non non boobu gis ma léegi boobu ku doon tontu ñoom. ah xaw ma de xaw ma kan fan la bokk daal man moom xam nga du ma ne ñoom du ma ne ñii maa ngi ma rek. non non man non non man man déggu ma loolu la may wax ci tabaski ñoom munuñ ca ñaari Mali tabaski kenn ci ñoom ku ci mën a indi fenn bu koy saxal amul. loolu munuñ ca wax bu yàqu la sax loolu moom daanaka waaye li may wax mooy. maanaam nañu dem ñoom seen bopp ah. waaw allo. ñoo ngi lay déglu bu baax de ñoo ngi lay déglu bu baax. waaw kay ma ne may wax mooy loolu maanaam moom li muy wax aaya yi muy wax yëpp du ay aaya yoo xam ne ñun suñ bopp dañ koy moytandiku parce que aaya la yoo xam ne ñoom dañ koy layee wala ay dogitu aya lu mel ni wa anzalna ilayka zikra maa ngi ci doon bëgg a ñëw saako bàyyi ko. Mm-hmm. yàlla dafa wax yonent bi nekkoo وما ارسلنا من قبلك الا رجالا غيناو نيغا خامني لا جون نك نين تاخ يين دنج دون خار يالا واتي ملائكه تي نيوم يالا تي بير واخ دي مون ندخ نداو لي دا فا ام لو كو وات لودول جوتلي بو لير سا ودي كان نداو بي دارا وارو كو لودول جوتلي يالا واخول نا دا فا ورا نيو دي ليرال باسكو يالا اي واخ يو لير لا كو جوخ با بار مونو لا جوخ لو لير با بار نغا نان يو دا غاي نيو دي ليرال ندخ مان كو ديغ ليغي تي لولو مو واخ تي لا تحرك به لسانك لتعجل به موغي نيك تي سوره 75 لو كوماسي تي ايه 17 ba aaya 19 loolu kenn ku ci ne mën a dem vérifier ko yàlla wax na laa tuharrik bihi lisaanaka li bihi inna alayna jamhahu wa qur'anahu fa ida qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna alayna bayanahu mais yàlla waxul ne leeral gi loolu yonent bi mom la wax yàlla dana moom moom leeral bi moom la wax parce que yàlla mooy wax ay waxam di ko leeral ci biir téere bi te ay aaya yu leer la wàccee yonent bi la moom la wàccee ci yonent bi soo demee ci alquran nañ ko laaj ñaata yoon maam na demee xool benn verset bu leer bu nekk ci ma kii tudd waaye quinze yàlla ñaata yoon la wax ci alquran comme noonu mu waxee ci surat dix verset quinze wa ida tutla alayhim ayatuna bayyinatin suñuy tari ci ñoom suñu aaya yu leer yi xam nga lu muy wax dañ ne ko wa ida tutla alayhim ayatuna bayinatin yàlla ne xaala alladina laa yarduna lixaana iiti bi quranin gayri hada aw baddilhu mu wax ne xul yakunu liya an ubaddilahu min kilxaai nafsi in attabihu illa ma yuxa ilaya inni aqaafu in asaytu rabbi azaba yawmin azim yàlla dafa wax yonent bi ne ko tari ci ñoom suñu aay yu leer yi gaa yi nga xam ne yaakaaru dajeeg yi nga xam ne yaakaaruñ dajeeg yàlla dañuy wax yonent bi ne ko indil beneen alquran bu dul bii wala nga soppi ko yaa ngi dégg indil beneen parce que lay tari ci ñoom ay aaya lay tari ci ñoom yonent bi tariwul mu jëm ci nit ñi beneen wax bu dul ay aaya loolu amul amul amul benn moom ci boppam amul benn aaya bu mu mën indi boo xam ne ci alquran yàlla dafa wax ne yonent bi da doon tari mu jëm ci nit ñi leneen lu dul ay aaya yàlla yu leer loolu amul loolu amul yonent bi su waxaan ne su ñëwee di tari ay aaya yu leer nit ñi dañ ko daan wax naan ko indil beneen alquran budul bi wala nga soppi ko yàlla wax yonent bi ne ko waxal ne warut ci man ma di ko soppi ci sama coobaree bopp ndax man topp ma lu dul liñ ma wax yu yonent bi mooy wax yàlla moo ko wax loo mu wax mu ne moom topp lu dul liñ ko wax yu te moom ragal na moom yonent bi mu ne moom ragal na su moyee boromam mbugal mu moom ne moom ragal na su moyee boromam mbugal mu màgg loolu mu ngi nekk ci surat 10 verset 15 ah, mu ne moom ragal na su moyee boromam mbugal lu màgg kon loolu mu doon lu leer dégg naa ko mu ne alquran amul fenn fu yàlla wax ne maanaam bu maanaam yonent bi eh, kii mu tudd xaw buñ topp leneen lu dul alquran xaw ma yonent bi xaw ma daawul wax leneen lu dul alquran mais loolu lu leer la dama leen wax benn xaa ma wax leen ay aaya su ko defee ma tàggatoo loolu après ma ma tekki tàggatoo bi rek nañ dem surat set muy suratu Araf lu commencé aaya un ba aaya trois foofu suñ fa demee dinañ xam lan la ñu yàlla toppaloo ak lan la ñu toppaloowul yàlla dafa wax yonent bi ne ko alif laam miim saad ne ko kitaabun nañ bàyyi xel baat boobu kitaabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika xarajun minhu li tunzira bihi wa zikra lil muminin mu teg ci lan ittabihu ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabihu min dunihi awliyaa xalilan ma tazakkarun yàlla dafa wax yonent bi ne ko ab téere bu ñu wàccee mu jëm ci yow loolu la ko wax de ab téere ab téere waxu ko ab téere ak leneen ab téere bu ñu wàccee mu jëm ci yow nee ko bul nekk ci sa dënn maanaam sa dënn maanaam bul am loo xam ne dafa aay ci yow ci sa dënn loo xam ne dafa bàyyikoo ci loolu ñu wàccee ci moom di téere boobu téere boobu lu ko tax a jóg mu ne léegi mu wax ko rek mu wax ko rek mu wax ko rek ma li bi bihi ngir nga xuppee ci ak fàttalee ci ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla ñëw wax yonent léegi ginnaaw gi yàlla wax ñi gëm mooy ñun ñi gëm yàlla dañu topp leen li ñu wàccee ci yéen mu tukkee ci seen borom te bu leen topp lu dul loolu di ko def wéeruwaay lan la wàccee mu jëm ci ñun te tukkee ci moom parce que téere la wàccee mu jëm ci yonent bi téere boobu la ñuy yonent bi jottali ba pare yonent bi lam ñu jottali da ko daan jëfee waaye téere boobu nga xam ne yonent bi moom la ñuy kon moom la yàlla wàccee mu jëm ci yàlla mu ne buñ topp lu dul loolu nag di ko def wéeruwaay kon léegi su waxee ne ñun nit ki mën na topp leneen ku gëm yàlla su toppee lu dul téereb yàlla ci diine doxul ci ndigalul yàlla ak ku mën a doon ku gëm yàlla ku mën a doon su toppee ci diine beneen wax bu dul maanaam leneen lu dul téereb yàlla toppul ndigalul yàlla su fekkee ñoom wax yi nga xam ne moom la ñuy tuddee xadis dama ciy indi benn wax boo xam ne lu leer naññ mu ngi nekk ci surat quarante cinq verset six parce que dafa am loo xam ne dafa mat a bàyyi xel ñoom baatu xadis suñ koy indi ñoom ci seen téere yi ak suñ koy wax duñ ko firi mais su ñëwee ci alquran même suñ doon traduire dañuy traduire daal baatu xadis damay wax ne ñaari baata ngi nii su ñëwee ci seen téere yi wala ñoom ñuy wax buñ ko firi mukk mais baatu sunna ak baatu xadis Mm-hmm. waaye su ñëwee ci alxuraan baatu sunna dañ koy firi dañ koy maanaam dañuy wax la mi firi baatu xadis su ñëwee ci alxuraan dañ koy firi waaye suñ demee ci suurat quarante cinq ginnaaw bi yàlla waxee ci surat trente neuf aya vingt trois muy suratu zumar aya vingt trois ne allahu nazzala ahsana al xadisi yàlla mu ne moom moo wàccee gën jaa rafeti xadis ginnaaw bi yàlla waxee loolu ba pare ne moom hadith yi gëna rafet mom moko wacce mom yàlla xam nga loolu la wax parce que yàlla ay waxam lay tuddé hadith mom yàlla demat ba suratul nisaa'i mi surat 4 aya 87 yàlla ne wa man nga xamne ci mujjuk aya bi ba aya boobu tambalé allahu la aaya boobu tàmbalee allahu la ilaha illa huwa la yajmaannakum ila yawmi alqiyamati la rayba fihi lan la yàlla jeexalee aaya bi wa man asdaqu min allahi ana ku gën a dëggu yàlla ci xadis yàlla nee na moo wàccee moo wàccee xadis yi gën a rafet ba pare tamit moo laaj ana ku wa maanaam ana ku gën a dëggu moom yàlla ci xadis kon loolu ku gëm yàlla xam na ne yàlla kenn gënu koo dëggu ci xadis yàlla ñëw léegi ci suurat quarante cinq verset six ginnaaw bi mu tàmbalee ci bopp saar ba yegg si foofu lan la wax ci aaya boobu tilka ayatullahi nattuluha alayka bilxaqi fa bi ay xadisin baada allahi wa ayaatihi yuminun yàlla mu ne lii de ay aaya yàlla la yu ñuy tari ci yow ci dëgg mu teg ci ne ab question la fa teg ana ban xadis ngeeni gëm ginnaaw yàlla akay ay kéemaanam ana ban xadis ngeeni gëm ginnaaw yàlla ak ay kéemaanam kon léegi ku gëm beneen xadis bu dul xadisu yàlla yi kooku ci ndigalu kan lay kii topp leneen lu dul ab téereb yàlla te yàlla na ko bul topp lu dul loolu di ko def wéeruwaay kooku ci ndigalu kan lay dox kon loolu mu nekk lu leer te lii yëpp dañ koy baamu ci vidéo yi di ko baamoo ko baamoo ko baamuwaat li am solo rek mooy nit ñi dañ dem vérifier ko xoolal ko seen bopp kon macha allah sant yàlla daal léegi nag li ñuy tëjee rek mm-hmm. c'est ça li ñuy tëjee mooy yow di la sant wax dëgg yàlla lii am na solo jërëjëf parce que xam nga li may wax rek wax jii nii dafay nekk depuis des années ñu di ko wax nit ñi di ko moytandikuloo nit ñi di ko ragalloo nit ñi parce que nit ki même su fekkee ne day wax dara yéen ngeen dëm ne moom li muy wax wérul mais bu leen ragalloo nit ñi ñu déglu ko te rawatina kii waxul ay waxam alquran lay wax li muy wax day joxe lay référence su waxee joxe ay référence su dee moom la mu wax moom mo wér su boobaa nit ki dana ko mën a xam su dee la mu wax wérul dëppoowut ak la ca aaya ba it danañ ko mën a xam xam nga loolu jafewul kon ñun li ñuy def dañ ciy jiital transparence am na ci loo xam ne sax maa ngi waxoon danaa ci ñëw mooy li muy wax ne ci ci laylatul xadri ba tey la yàlla lim ci inna anzalnahu fi laylatil xadri loolu la yàlla wax moom mu naan xama xadar xama lan xama lan ci laylatil xadri loolu la yàlla jàngale وما ادراك ما ليله القدر ما صاح داي كيري باسكو يوم القران بو واخ دغ يالا دوما تي نيك صاح دي ويرنتك موم دي واخ لي كين خم لول دوما كو ديف يالا لامول لين تي غودي غوغ nga xamne ci القران motax ci سوره الدخان سوره 44 يالا ني inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin gudi goga la ca yalla lim nonu yalla limi woné moy lolu moy gudi gogu dako barkel te loolu la wax ci suratu duxaan inna anzalnaahu fi laylatin mubaraka guddi googu lam ca wax yépp mooy barke ba mu am guddi googa nga xam ne ci la alquran waaj barke ba mu am suñ borom moom lay wane ci suratu xadri loolu noonu la demee mais du leneen yàlla sant ñu te su ñëwee nañ ca def lii wax nañ ca def laa loolu amul yàlla jàngalewu ko fenn am lépp luñ ca mën a wax ne loolu diine ji la bokk Mm-hmm. diine ji lépp loo xam ne yàlla jàngalewu ko bokk ca mm-hmm. ndax yàlla moo xam le ne li mu wax ñu jëm ci yonent bi ci téere bi mooy dëgg kon lu génn téere bi du dëgg loolu jëm sonn mm-hmm. te dëgg du ñaar du ñett du ñeent dëgg benn képp la te mooy dëggug yàlla ji ah, kon yow lu mën a xew ñu ngi lay sant bu baax di sant ñi nga xam ne ñoo doon topp live bi yëpp moom sax di ko sant xam naa ne moom sant ma mais maa ngi koy sant <laughs> parce que permettre na nit maanaam nit ñi maanaam ñu déglu xeetu débat contradictoire bi hmm. te man li ma gënoon a soxla am na ay aaya yu doon wax ginnaaw gi wa maa yantiqu anil wa hmm. ay wa anzalna ilayka zikra ba tey loolu sa ñëw moo ci bil bayyinaati wa zubur parce que yàlla bi wax mooy bil bayyinaati lam doon joxe ay leeral la ay leeral nag amul luñ koy leeral comme nu ma leen waaye wax dëgg yàlla li may wax rek mooy ñu ngi mooy ñu ngi sant yàlla bu baax di la sant yow di sant ñi nga xam ne ñoom ñoo doon seetaan euh, comme ñu tudd live bi ak di ko déglu mm-hmm. di ko sant moom it parce que man li may wax rek di ne xëy na moom dafa jàppoon ne man dama nekk koo xam ne ku offensif laa ci samay wax mais man duma genre boobu l'essentiel li am solo rek mooy man moom euh, nit sooy wax maanaam da ngay soo waxee cig dal ma wax cig dal mm-hmm. comme niñ ko daan jàngalee ci yéen téere yi mooy kama tuddiina tuddaanu mm-hmm. man am na ci yoo xam ne noonu laa koy doxee am na ci yoo xam ne aw ma problème bi mais nag comme dañuy wax ci xam-xam nañ wax ci xam-xam mais hmm. sorxo sorxo waxtaan parce que waxtaan yoo xam ne daanaka perte de temps lay nekk hmm. loolu amul benn njëriñ te wax dëgg yàlla kontaan nañ trop di rafetlu bu baax waxtaan wi di sant bu baax hmm. ñi nga xam ne ñoo ngi déglu su fekkee ne li ñuy wax leer na wala leerul mën nañ ci xam dara su fekkee ne moom la muy wax loolu mooy li wér wala man li ma wax mooy li wér loolu tamit kenn ku ci ne mën na ci xam dara li am solo daal mooy kenn ku ci ne mu xam ne yàlla topploo wuñu lu dul ab téeram te nee na buñ topp lu dul loolu di ko def wéeruwaay hmm. su fekkee tamit dañoo jàpp ne ay xadis mënta ñàkk ñoo xam ne yàlla moom daf moom lim ñu laaj mooy ana ban xadis la ñuy gëm ginnaaw kiñ tudd waay ginnaaw ay xadis am moom su fekkee tamit par exemple maanaam ñi nga xam ne dañuy wax xam ku dem quran sunna bi biyee yonent bi wala boo xam ne dañ koy moomale yonent bi loolu amul fenn ku ko yàlla tudd ci alquran baatu xikma it la muy firi ku dem ci alquran da dang ko xam léegi nag la muy wax te sax am na ñaari nga xam ne am na ci ñaari wàll xikma bi nga xam ne dafa nekk ci biir téere bi yàlla wax ko te loolu ay doxalin la te loolu tamit yàlla dina ko defal ku ko soob comme ku mel ne luqumaan luqumaan yàlla defaloon na ko xikma te taxul ñu ne da koo defaloon ab sunna kon loolu dëgg-dëgg noonu la demee kon mu nekk loo xam ne rek wax dëgg yàlla li am solo mooy kenn ku ci ne lépp lu ñu wax joxele lay référence na dem vérifier ko boppam su ko vérifier liñ ci war a gisal seen bopp dinañ ko gisal seen bopp liñ ci war a xamal seen bopp dinañ ko xamal seen bopp yow nag wax dëgg yàlla may kontaan bu baax ci opportunité bii nga xam ne moom nga ñu may ba tax nit ñi mën a dégg ñun lu ñuy wax ba mën koo dem vérifier ba mën cee yeewul seen bopp suñ ko toppee ñoom la seen diggante ak seen borom suñ ko toppul ñoom la seen diggante ak seen borom te nii lañ koy waxee ci vidéo yi ñuy def macha allah sant yàlla ko kontaan nañ trop jërëjëf. jërëjëf Sakho jërëjëf. kontaan nañ kontaan nañ tamit si yow si sa temps bu ñu jox waaw temps bu ñu jox. Hmm. participation beeg waaw waxtaan bi comme ni ma ko waxee ñun moom voilà. Hmm. comme nga waxee ñun génération bu bees bi. waaw jamono ji nu toll lool. Hmm. tabaarkàlla macha allah dara dara këfunu. te xam nga kenn hmm. kenn daal gëm naa ni ko ma xanaa ñenn ñu si mais ñun suñu majorité yeewu nañ moo taxit wax gi daal lii leen si jublu woon mooy waxtaan teg su ngeen waxee teg léegi ñu si hmm. des dinañ mën a gëstul seen bopp dinañ mën a dem xool te tabaarkàlla hmm. macha allah waaw seen wax rafet na ñe ñëpp laay wax waaw ku si nekk ak euh, lu mu gëm nag waaw léegi nag nañ bàyyi ñu si des ñu daal di dem xalaatal seen xel parce ku nekk am na sa xel te dofunu wax gi nag nu mu tegoo ñun gis leen ko ñun ñëpp allah léegi daal leen rek la leen gën a mën a ñaan mooy continuer toujours si même mission bi même mission bi parce que lii leen fi am alxuraan lii la mooy jà jàllale message passer le message soo si passé comme ni ma koy faral di waxee mën ngaa raxasu dem toog yaa ngi dégg donc tabaarkàlla macha allah yéen a ngi def liggéey bu rafet si islam waaw waxtaan gi neex na lool sax te xam naa ni ko doyul am na yu bëri yu waloon mais temps bi la temps bi la allah xam na ni que beneen yoon suñu yàlla maye wu mën nekk wala kii u defaat xam nga daal di continuer wala nu xool keneen ko mën a dugg wala nu xool daal nu ñuy def pour leeral waxum yàlla parce que leen fi dese lii leen fi dese te mm. kontaan naa si temps bi kontaan tamit encore si leeral yu fi yu di la ñaanal jàmm di naan mm. na la yàlla defaral jàmm yaag sa njaboot waaw mu tan bokk lépp incha allah comme bok sama gay lolou len amone tay ñew euh, di len ko proposer si waxtanu islam bi ya, nan len euh, nan len encore euh, ma ngi len di remercier si ñen ñu ngeen xam ni ka tay ji ni andi nañ fi app yar andi fi app teggin te ak voilà ñëpp ñu fi ñëwoon si ginnaaw nak andi fi leneen comme nun koy waxe chaque jour rek c'est dommage voilà c'est ça notre Sénégal et c'est ça notre héritage voilà léegi nak wax gi moy wa jarul di xuloo jarul ki jarul nangam parce que man yàgg n'a di ko wax il faut aussi faire un pas islam so beugé fayum yalla le reste nak sa bu xam nga sa bu revient moy lan yeen seen bopp tamit ngeen di jéem a gëstu ay affaire yu ndaw xam nga kenn doonu fi lenn loo xam ne fi nenn si diine gi wante gëstu gi war nañu nyep, ñëpp gëstu gi war nañu nun ñëpp dugg si yoonu islam bi xolal gën koo comprendre war nañu nun ñëpp il n'y a pas qui ont été choisis pour gën wala xam islam bi wala dem di ko jëli di nu ko andil yàlla ba mu koy teg nun ñëpp la ko war lu si lu si war kenn ki moo si war ñëpp c'est pour nous tous donc nag wax gi ñuy toog fi di toog di wax akidi expliqué ki di wax jaruko jaruko waxtan bi man tay luma gis ni ke moy poser na te ñaari ni jox nañu sen waw sen temps ku nek nak wax position tek ko ci ay argument voilà léegi nak ñun nak ku nek suñu bop xam yan argument mom mo doy si suñu bop ak yan argument moy lool on n'est pas là pour choisir kenn lu mu wala top wala lu mu wala gëm wante live baa ngi fii kenn du effacer kenn du supprimer ku nekk balaa ngaa tëdd su la neexee nga seetaanaa nga dégluwaat kàddu yi ñu fi wax ñoom sax seen bopp xam naa ni que dinañ ko seetaanaa dégluwaat encore seeni kàddu ak ñeneen ak lu ñuy wax parce que loolu rek lañ fi am quoi léegi nag le reste nag moom nu ñaan rek yàlla nangul nu suñu jaamu voilà yàlla nangul nu suñu jaamu yàlla yokk nu ragal voilà yàlla musal nu si musibaak balaa musal nu si seytaane waaw defal nu daal nu doon ay nit yoo xam ne ni que ñuy nekk si yoonu yàlla ci yoonu diine doon ay muslimina ki musliman lola la laa leen di ñaanal yéen ñep di leen jéggalu nak encore si bép wax bu fi yàqu tay lepp lu fi lu fi ñaaw rek ngeen xamni que sama dëngër la ak euh, sama di rek sama nite lepp lu fi rafet nak moom ngeen xamni que la rek comme d'habitude te yalla nañu ko yalla défaral ay yiw comme numa ko waxé on doit pas accepter nu ñuy tafal image wala no nangu nu ñuy tafal image di nu génnee si affaire bi di technique pour dugg suñu xel yi daal di nu gëmlo ni que xam nga amuñu compétence wala mënunoo àgg fenn wala mënunoo àgg si leen loolu noonu yàlla nañu si yàlla musul comme boog nag sur ce ma leen di ñaanal encore yéen ñëpp rek fépp fu ngeen nekk yal na leen yàlla jàppale nu daal def noonu ba si beneen waxtaan a yéen waa tasawuf lii du seen waxtaan xaaleen ma pare ma xewalu ba pare après mën na noo waxtaan su ngeen bëggee ma defal leen benn live 30 minutes xam naa seen xoolee bon gis ngeen waxtaan bi fii nu mu demee li wa sukna lo woon ak sun ak ak muslimi gis ngeen waxtan bi du mu tegoo woon bi neex amul dara lu fi yaq wax bu fi bon bi fi génn yeb yen la wa tasawuf yen fi ñew geene sen wax ak xamna lu len metti mom xamna lu len nakari mais c'est pas le bon endroit c'est pas le bon moment quoi yen ngi comprendre voilà léegi da ngeen nuy may nu daal ñaan tagoto pare legi suñu pare legi mën na la na ubbil yéen sen live bob nga ñew xuntu voilà bureau de réclamation voilà après na leen def 30 minutes de réclamation ngeen daal di ñëw ah yow Baye Moussa yow kii mais fii nii moom tabaarukallah macha allah après yéen ñu tardé ngeen dégluwaat laa bi ngeen dem xool aaya yeeg suraat yeeg waxtaan wi tey sama yaram bi di la doon def tey dafa kontaan quoi lii yow yi yow may fa jaaru débat yi je suis content ay waay Mbacké Sakho dundal lu bëri imam Fadel tamit dundu leen nii laa gëm de da ngay lu ma doon voilà da ngay ñeme sa position génn ñëw layal ko wante toog si ginnaaw fee keeg nangam di wax ba dunoo jàppee ay kon keeg nangam c'est fini moo tax Mbacké Sakho guddal fan dundal lu bëri voilà imam Fadel Ndiaye tamit waa guddal fan dundal lu bëri voilà yàlla na seen xam-xam yokku wala yàlla na seen waaw yërmande si yoonu islam yokku yàlla ngeen di gën a gën rek di taxaw di waxtaan si yoonu islam ñuy wala voilà tabaarkalla macha allah don kontaan naa si yéen te yàlla nañ amaat ñeneen ñu mel ni yéen moo gën toog di gaar waale di def ay audio di sànneeg toog fee ne di wax di gaar waal wala yenn genre imam imam Kebe defe naa boobu. xaw may Mor Kébé xaw ma lan dinaa ko wat ndel mu xam toog di gaaruwaale ki di keeg nangam su ma moytuwuleeg ay gaaruwaaleem dinaa dugg si koppateem voilà loolu soxlaw nu ay gaaruwaale alquran bi andi lenn ko leeral jox suraat yeeg aayay bàyyi nu nu dem débrouiller waaye nit mënu laa takkal jabar defal la lépp ban si diine gi bëgg noo jaamul suñu jabar nu diine gi tamit orienté leen nu bàyyi nu nu jaamu waaye mais nag gars yi daa la wax sa life duñu la jàppale sa life du sooy dund la jàppale leneen mais ci diine gi nag loo xam ne dafa spécial yow ak yàlla ne ñoom ñoo la koy jàppale war la doo koy jaamoo un moment tamit nen ragal yàlla voilà giddaleen nit ñi bàyyi nit ñi tamit nu daal di ànd seen sago jaamu wala comme boog nag nu ma leen ko waxee nu def noonu ba xam naa si kanam bureau des réclamations maa ko waa tasawuf parce que comme que ils ont pas pris leur dose ils vont venir prendre leur xam nga voilà daa réclamer donc nu def noonu ba si beneen wax peace love and harmony di lay ñaanal te di leen sant yéen ñëpp yu nekkoon tey si live bi andi fi ab yiw andi fi ab yaraki teggin yal na leen yiw yàgg topp yal na leen teggin yàgg topp yal na leen waay yow mbaax sonal ñu def noonu ba si beneen waxtaan peace love and